waaye ma jëkk nuyu Ndoye Bane jaajëf <clears throat> Eva ñu ngi lay ziar di ziar euh, kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp euh, di ca jiite sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr mhm. di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ziar tamit euh, waa Pire Sañoxor gépp sunu xalif ba sëriñ Mansour Cissé mhm. di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ak notable ya fa ne yëpp di dalal jàmm sunu invité fii invité bi di Mamadou kase euh, mhm. président association tëgg table mhm. di ziar tëgg table yeeg tëgg ya dul table tëgg yëpp ñu ngi leen di nuyu mhm. euh, di leen ziar bu baax a baax a baax macha allah Mouhamadou Kassé ñu ngi lay nuyu bi bokkul ak Mouhamadou Kassé bu bu bu bu Sicap bokkul ak Mouhamadou Kassé ba nekkoon itam BHS ki ñu jàkkaar lool dañuy fàttali ne moom moo représenté ñi nga xam ne ñoo nekk ci association tëgg taab. Mhm. xanaa damay wax tëgg dawul mbaar. waaw tëgg dawul mbaar <laughs> waaw Eva ñu ngi lay ziar ñu ngi di leen nuyu. Mhm. di leen jaajëfal di nuyu Ndoye Bane. di nuyu Sénégal yëpp. di nuyu tëgg taabal yëpp. di ñaan suñu borom def émission bi ñu def ko ci jàmm te mu jëriñ en tout cas ñu ngi nuyu kilifa kër gi. Mhm. di jaajëfal TFM ci. taxawaay bi nga xam ne yàgg na ko am. ci réew mi te eh, bu ñu nee consommé local nag daanaka mooy réew. Mm-hmm. waaw ñu ngi leen di jaare bu baax a baax a baax. Mm-hmm. di nuyu mam yi. très bien Khadim Niang moom la xale yi jël ñu ngi koy nuyu. waaye di beral nuyoo itam waa kër Yoro Lam Ablaye Lam Aruna Lam ñu ngi leen di nuyu. Maas cëti leen moom itamit sunu xarit la mm-hmm. sunu soppe la. yal yàlla defal ko jàmm defal tëgg yëpp jàmm. ne bu ngeen fi nekkul woon làmbaay ñaaw ajaratu lingeer itam mi ngi ñuy soog Euh, mi ngi ñuy soog a seet si léegi léegi yaayu baay ci kanam dinañ dikk ci moom waxtaan bi waxtaan bu mën a yaatu la dafay fekk nag yéen ngeen di woote di joxe seen xalaat ndax kontaan ngeen ci tëgg yi loolu tam jigéen ñi bëgg naa ngeen woote wax seen xalaat ñoom itam lan mooy seen ay mébét lan mooy seen ay bëgg-bëgg ndax ooru sabadola bi yéen a ngi ciy jot sax laay jëkk laaj ndax ñun dañ koy dégg rek waaw ah. or bi de dafa mel ni ñu comme ni ngeen koy déggee loolu lañ koy déggee yéen itam waaw lañ koy déggee su ah, mu nekk ni noonu koy déggee noonu ngeen koy dégg. waaw parce que xam nga président Macky Sall bi mu fi ñëwee. 2012 waxoon na ne dina jël 5 pour cent pour jox ko tëgg yi. liy génn ci or sabu bi. te ñu ñu jàpp ne sax loolu tuuti nag. parce que bi ñu bi ñu demee ANSD. Mhm. bi ñu jëlee rapport yi nga xam ne moom la ñuy loolu la ñu publier na loolu mooy génn or ci sa ci sabu dollar. Mhm. ñun tëgg yi taabal yi rek waxuma la tëgg yi des nga xam ne ñun ñu ngi recensé nga xam ne ñekk nañ suñu base données. mën nañ mën nañ tagg loolu kon buñ ñu jaglee bu ñu jaglee les cinq pour cent loolu dafa tuuti mais loolu sax ñun gisaguñ ko parce que condition yi nga xam ne moom la ko war a joxee ba léegi dajeegul waaw loolu dajeegul ci yéen wala dajeegul ci wàllu dajeegul ci ñun waaw problème mu TVA yàlla dajeegul ci ñun dajeegul ci état bi parce que ñun jàpp naa ne ñun ñaar ñun ñëpp ñoo war a daje mhm. pour mën a taxawal loolu parce que bu nekkee ne matière première mhm. képp ku ko génne sa matière première réew ku ko génne mhm. sa doomu réew génn parce que matière première rek moo mën a téye doomu réew. matière première rek. moom mën a téye doomu réew. mais fekk ñu ngi koy génne noonu brut di ko génne. seen i doomu réew dañuy génn dem Mali wala ñuy dem Côte d'Ivoire wala ñuy dem fu nekk. la preuve mooy boo demee ci àll boo demee ci dëkk yooyu. ay sénégalais rek nga fay fekk ñooy tëgg. xam naa ci dara léegi comme ñooy tëgg foofu parce que amuñu matière première fii pour pour tëgg te ñoom am nañ lu leen lu ñu mën lu leen mën a téye fii. Mm-hmm. te it su nekkee ne jël nañ matière première bi ñu wàcce ko jëm ko tëgg jox ko tëgg yu ñu tëgg avantage ñi ci laal dafa bëri koor yi nga xam ne laal nañ ci ci or boobu boo ko comparé ñu def ñu def benn contrat boo xam ne mën naa am benn étranger mooy ñëw si ak ñoom contrat nga xam ne bu ñëwee sax du jaar fi Sénégal ci avion lay jaar dem léegi bu ko wàccee woon si suuf nga xam ne bu jógee Saoudi la ba bi muy jaal ci bisu bi ba bi muy yéegaat ñu koy importé lépp nit ñi dañ ciy dund parce que dafa am industrie chimique bu ci nekk nga xam ne bisu bi bu ñu ko jëlee Saoudi ba defar koo pare or bi bu ñëwee ñu niñ koy liggéey matière yi nga xam ne moom lañ koy composé yooyu yëpp dafa am ay nit ñu ciy dund parce que boo jëlee maanaam ñooñu ñëpp dañ leen di dafa am ay matière ñoo xam ne dañ leen di liggéeyloo chaîne la boo xam ne waxuma la tëgg bi au delà de bi mm-hmm. mais ñi nga xamante ne dañuy jaay asib ñiy jaay siir nga xam ne ñiy jaay lépp lu nga xam même courant bi nga xam ne Senelec su boobaa ñun suñ production day gën a yokk ñu mën a jënd ay machine pour mën a pour mën pour mën a fay suñuy te suñuy suñuy taxi fii waaw mën a taxawal suñuy société embauché ay nit léegi loolu bu nekk ne jël nañ matière première bi génn ko mais tëgg bi day toog ba day sonn ba mu ne lii gisatul bopp mu dem jaay commerce wala mu génn dem moodu moodu ji te organise Sénégal dama koy wax fu nekk bokkul tëgg bokkul ci métier yi nga xam ne dellu na ginnaaw ci Sénégal ñun mën nañ teg sunu loxo ne métier am ci wàllu xarañ kenn du ñu reproché ci wàllu xarañite xëy na organisation bi moo des te organisation bi du nit amul benn réew boo xamante ne nit ñi seen bopp ñooy jël volonté pour organiser secteur bi ñu nekk état bu Sénégal moo leen di woo jàppale leen am nañ ay OPA association ñaari association yu mag ñu ngi fi ñu mel ni AMBS ak association tëgg taabal ñoo mën nañ leen a ñu ngi leen di nuyu leen gérer ñoom mën nañ leen a comme ay patronat ñun ñu jàppal ñu comme ay ouvrier jàpp naa ne bariwul ay bariwul ci Sénégal ay ay ay ay ay ay corps boo xam ne ñaari organisation nationale ñu fa am xam ne loolu jafewut a contrôler te te ñun bokk nañ ci métier ndax dañu am ñaari ñaar yoo xam ne bariwul ñu ko koor yu mu am. mooy ñun dañoo bokk métier daanaka lu ci ëpp ay mbokk lañ. ci ëpp ay mbokk lañ. te ñoo bokk métier te ñoo bokk daanaka fañ jëm. léegi ñooñu pour nga boole leen day yomb. te muy dëkk pour nga boo leen pour nga boole leen parce que koo ci laal rek laal nga ci ki si des. léegi nag te ñun tamit nekk ay liggéeykat maanaam boo gisee tëgg pour nga gis leen ci ay yenn yi ay manifestations ñu ngi def nangam bariwut parce que démb rek maa ngi leen di tooñ waaw maa ngi leen di tooñ ne la xam nga ouvrier <laughs> bu xëyee rek day yaakaar ne addunaam yëpp ci mbaar bi la nekk du tàllal loxo nekkul ci ay caaxaan wala nangam wala kii te jàpp naa ne loolu mooy développement nit ki nga xam ne bu xëyee dem place am nekk fa huit heures ci suba ba vingt heures xëy dem ñibbi kooku talul agressé talul nekk ci yenn détails lii ñuy gis ci net bi wala lii ñuy gis ci Sénégal muy yàq réew mi ñoom taluñu loolu kon jàpp naa ne war nañ leen jàppale am na ay manque-manque nag parce que manque-manque ni ñu ko waral mooy amul organisation bu taxaw boo xam ne état bi taxaw na nga xam ne sunu mbokk jigéen yi nga xam ne dañuy jënd bijou ñu or bi mënoon na ko taxawal taxawal boo xam ne comme ni mu daan demee nga xam ne képp koo xam ne jënd nga bijou dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy poisonné ñu vérifier ko ba mu baax nga xam ne ñu mel ni man wala ñu mel ni nga xam ne authenticité bi voilà nga xam ne amoon na poisonnage ay jamono nga xam ne képp ku jëndaan bijou bijou bi dañ koy tamponné dañ koy dañuy yóbbu service service bi limite ba nga xam ne bijou bi jàpp ne bu dee 18 la 18 la bu dee 21 21 la. Ah. xam ne boo ko jëndee yow sa xaalis day garanti. mais tëgg bi tamit liggéeyam day garanti. sama benn xarit ma nga itali ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. yaayu Malick moom day dafa jënd euh, lami or maa ngi koy wax nii mhm. wax naa leen sax. Euh, kii mhm. ba mu demee foofu ca itali di ko di def expertise di ko xool. gis ne dañ ko rax li ngay wax nii la. waaw loolu mooy li ma wax xam nga dama koy wax gars yi léeg-léeg ma ne leen doomu aadama suñu borom bindee manqué. xam nga yàlla bi mu ñu bindee ñun. daf ñu teg yonte bi bi mu ñëwee. daf nañu lii baax na. def leen lii def leen lii def leen lii mais ku def lii ñu def la lii. Mm-hmm. waaw ku def lii ñu def la lii. Mm-hmm. ku deful lii ñu def la lii. Mm-hmm. doomu aadama lu suñu borom mooñee loolu. amul amul benn societé boo xam ne ñëpp dañuy jaar nii. ci soo demee ci journaliste yi am na soo demee foo dem am na fa léegi li ñuy li ñuy li ñuy li liy régler secteur bi mooy mu am ay sanctions. kilifa yi nga xam ne sas nañ leen loolu ñoom ñoo war a jël seen responsabilité corps de bu nekk ñu dugg fa dajale association yi lan mooy problème bi lan moo koy yàq fan la jëm lan ngeen bëgg fekk 10 ans ci kanam ngeen yegg fa mais mënuñu nekk ci sunu maam yi nañ daan tëggee ñoom ñu bàyyi ñu di ñu seetaan rek nañu secteur secteur informel chaque jour ñu ñuy xasee loolu lépp loo xam ne ñëw na ñu ne leen ñoo ñuy secteur informel la te ñun pare nañ pour génn ci loolu parce que informel ñaar rek lay doon yow ngay dundee dund boo xam ne li ngay dund munoo ko munoo li ngay liggéeyee amul benn loo ko mën a justifier amoo ni ne yaa amoo carte professionnelle amoo nangam amoo nangam kenn nga nekk ci benn ruq mais ñun bi ñu ñëwee léegi association nationale bi jeu équitable ñu ngi ciy def liggéey bu am solo parce que ñu ngi yee tëgg yi ci seen responsabilité seen réew. parce que responsabilité boobu nga wax noonu maa ngi bëggoon delloo lu tuuti ci ginnaaw ki nga xam ne dafa def euh, ay kirit karat ci biiju jàmbur. loolu tey bu dee tëgg yi dañu am union wala ngeen am seen seen kuréel seen ndaje lan mooy nekk seen seen wàll yéen ci kooku nga xam ne day day rax tëggam gëm. waaw loolu xam nga ñun liñ ci mën. lan ngeen damay wax ne baadoo la mënul jubbanti moroomam mënul nekk ñun amuñu police. Ah. amuñu brigade amuñu service de mines pour mun a jubbanti loolu. Hmm. xam nga boo xoolee yenn produits yi nekk ci seen yenn yi nga xam ne day dugg ci Sénégal hmm. soo demee marché parfois nga gis service de mines ñëw di wër. yi nga xam ne mooy mooy false moom la ñuy cop di ko di ko jàpp service de scène léegi ñun pourquoi amuñu loolu te ñun mënuñ ko defal suñu bopp xëy na association mën na loolu mais su ko defee ci ban base koy teg mais lan lan lañ mën mooy sensibiliser wax leen danger bi nekk ci loolu mooy mi ngi mel ni yaa ngi toog ci garab di gor garab bi soo defalee lu baaxul nit yàqaloo sa bopp mais coor bi nga nekk nga yàq muy dëgg mais ñëpp amuñu sens de responsabilité amuñu dëgg boobu amuñu ko am na ñoo xam ne dañ naan damay am tey suba garaawut mm-hmm. njëriñ loo fekkee mm-hmm. xam nga at xaalis kenn du ko liggéey dañ koy liggéey am na ci lépp léegi moo tax man dama jàpp ne il faut ñun ñu dellu si xam ne réew mi muy lépp nag ku ci nekk koor yëpp li may wax ni ñëpp la laal mooy ku ci nekk ci li nga nekk nga xam ne yow sa responsabilité sa ku ci yow la commencé mm-hmm. nga jéem a defar sa bopp pare jéem ànd ak ñi nga bokk ngeen defar ko nekk ci société boo jubulee tooñ nga société bi ndax lu la laal laal laal ñëpp adduna daal ba ba muy jeex famille la rek mm-hmm. ku ko bañ itam da dañ la tegaat ci yoon li ngeen wallaay saxaar de bu demee bàyyi fa benn wagon dayu noo ñaaw te muy dëgg xam naa daal kon dama leen di ubbilee ñoom rek li jeeg ji di wax ngalam li jeeg ji bëgg bu ko amee moom la bëgg bu ko amul moom la bëgg mm-hmm. kon ñun ñu dem sans yéen ñoom doy ban mën na noo dem seeti leen jënd jox ñu waa xam nga boo jëlee dugub bi suuna def ko ci ci ci leget boo jëlee wurusu ngalam def ko ci leget buñ tëggagul jox ko bëy da koy jàppee dugub bi suuna waaye boo ko yóbboo kër yora laam gi ngay wax noonu wala ma dellu kër ngumba gay ga nga xam ne fa lañ ma ngéntee woon mm, boo dellu see ñu xam ne or pire nga leen jox dëgg la jërëjëfati cheikhul xadim cheikh ahmadou bamba sama yaakaar yi tey ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore di ziar mbooleem kilifa diine kilifa aaday ndoy baan sama maam nee na sa biir bi boo doon reeree cere sa guddi ba tey wàcc na yóbbante la te yóbbante àq la man damay kontaan fan yi eh, lu ngeen gën àggalil rek eh, demal fi mu ne day sa matt nga sotti nii jënd sa pétrole téye téye sa almet fas yéenee taal sunu diggante nii mais man yow damaa yaakaaroon ne li ma la woon fii barki démb dina la doy sëkk sëkk sëkk ba nga bàyyi ju ko kay baalal ma rek xam nga dinaa la dinaa la yaraat tey nag boo faree ah. gis nga Eva sànq ba léegi maa ngi toog di déglu ndax xam nga lu tax wax bu tungoomee seede day yomba nettali mhm. te dafa am loo xamante ne bu jógee ci gémmiñ day tag ci nopp waaye bu jógee ci xol ci xol lay dem directement mhm. dafay wax booy déglu da ngay xam ne ndekete kon ñun ñàkkuñu dara ma dégg la nga nuyu tëgg yi nga xamante ne nii ñi ngi def lu am solo guddi yi ñu toll ci ndakaaru mm. waaye man nag damay daal di wàcc samam réew rek daal di nuyu mbooleem tëgg yu am solo yi fa nekk dama koy teg ci loxo ma gumba caam mm-hmm. mu nuyul ma ko ca marché Cocody ba ba ngay teeree jee ñu nekk Boaké mm-hmm. ajame booleel ma ci gotte mbaay mm-hmm. waaw ñoom ñëpp nga fa frère Eva Tra kenn du kenn du ñoom xam nga ñoom ci jamonoy uféet ba ñi lekk nañ fa lenn lu nekk ba ci jamono ji ñu génn nii ña nga fay def lu am solo Gabon te boo wàccee ñoo lay teeru ñoo lay teral dëgg la tëgg yi dañu am jom dëkk boo wàcc ñoo lay teeru ñoo lay teral gunge la sëriñ si sépp xam nañ ne bu ñu fa demee mm-hmm. ñoom ñoo leen di taxawu mm-hmm. te ci loolu ñuy tëgg ci lañ yor seen njaboot yi nekk bitim réew yor ci seen njaboot yi nekk fii ci biir réew mi mm-hmm. mais Eva dafa am lu daw yaram moo di xam nga sàq nekk sa kër bàyyi ceeb ba ne fa dugub ja ne fa te bu ñu xëyee ne la doo fonde dafa metti mm. nit ku nekk ci li mu am ci lay tiitaroo ma wax la fi barki dem ne la bu tëgg demee lu fa upp yee di def liggéey bu demee ba yem ak tëdd jaratul jàmbaar di góorgóorlu liggéey bu demee ba yem ak tëdd jaratul jàmbaar di góorgóorlu dëgg la ndaxte yow bu fekkente ne li nga am ci sa biirum réew da nga bëtt ko di ko jëggaani feneen mooy ko yow ruusit ji rek nga mën a jot mm-hmm. te or dafa am alal ñu dem ba ñoom ñu am problème mooy que am nañ matière première bi mais dañ leen koy jëlale dem yóbbu ko feneen su dellu si waatee ci ñoom keneen jël ko sàcc bu bu jubadi bu mel ne man jaar fa sàcc ko ñëw jaay leen ko ñoom xamuñu nu mu demee ñu jënd ñun leen rësal mm-hmm. te ñoom amuñu fu ñu jëlee matière première il faut que ñu jëndaat te bu ñu tëjee sàcc bi tëjaale leen. mais receleur li muy li muy tëdd ah? gën a mettale sax receleur li muy tëdd sàcc bi sax sàcc bi mm-hmm. noonu ndax sàcc bi miin na kaso ba dem na dellu si na mm-hmm. kilifa la xammee na bokkaande mm-hmm. xam na ko bu baax Bertrand xam na ko bu baax xam na ne moom buy dem Daouda Diop ba tey ñu ngi koy tëj buy dem di dellu siwaat kii nag mosul mos kaso te bu demee baaram daan dañ leen di tëj ci rësal bu méttee métti ku ku mel ni ku mel ni day xalaat tey kuy ñëw di la jaay na ko laaj facture mm. waaye facture bi attention bu ma neexee dem kër ma ma xujja fële dem ca Kumba Joor Amérique ne defaral ma benn facture rek ma dem loolu tam san garanti san garanti rien waaw dégg naa bu boobaa ma xujje itam day am problème. <laughs> ah. parce que seen gars yi bare bari dañuy jënd or. Mm. bu bari di ko jënd ci jigéen ñi di ko jënd ci góor ñi di ko jënd ci agresseur yi di ko jënd ci sàcc yi mm. des fois am na ci ñoo xam ne lii alalu sàcc la mm-hmm. ngay jënd xam ne ngi dem jënd ko affaire bi feeñ ñu tëj nga fu ne nga fay woote te yow yàgg nga ci mbaar mi yàgg nga xam ne lii dañ koy tere te dégg yàgg nga dégg wolof naan alalu sàcc ku ko jënd sàcc nga mm-hmm. donc moo waral ñu bari sa gaa yu bari euh, di di di daanu ci yu mel noonu est-ce que yéen ngi toog ci seen kuréel yi di waxtaan pour mën a xeex lu mel noonu ak di sensibiliser ñi nga xam dañuy doog dugg ci liggéey parce que affaire boobu du affaire bu ndaw de mën na yàq yàq liggéey de. waaw xam nga xam nga sàcc moom ñun dañ ciy wax ñaar bala ñoo wax ndax dañuy jënd alalu sàcc wala jënduñu ko dañuy wax ñun li ñuy li ñuy sàcc di def. waaw noonu loolu dinañ ci dem dinañ ci dem dinañ ci dem mais dama bëgg sàcc bi nga xam ne mm-hmm. wala ñëw waxuma sax sàcc mm-hmm. Babacar mais jóge fee jóge fee xamu fu mu jóge oram jële or Babacar mi ci régi mm-hmm. ñu indi la or moom dafa jub non non gis naa ko fe temps passe mu yor mu jël mbuusu oram ñëw jox la ni dama koy jaay te joxu la facture joxu la dara nga jënd ko loolu est-ce que yéen a ngi ciy li ma ci wax mooy comme li nga wax léegi li ma doon waxaat léegi lay wax mooy am na ci ñu bari ci nit léegi soo leen indiwul facture duñ jënd or duñ jënd sa or. loolu mooy yoon am na mais li ma la wax léegi soo yéen journal parfois da ngay gis journaliste yi ñu ne la euh, comme ni ni ni mu demee nii ci net bi nga xam ne lee léeg sax nit day jóg rek yor benn caméra am ne man journaliste la def lu ko neex loolu day am ci tëgg yi am ñoo xam ne dañuy yor seen asib yor seen i kii di dugg ci kii di jënd ñooñu kenn mun leen contrôler mais ñun bu dee ñun am nañ benn fi mu nekk nii réunion yi ñuy def li ñuy njëkk insister mooy képp koo xam ne. jënd nga alalu sàcc te mu leer na alalu sàcc ñu la taxaw luñ la jàppale. boobu ngeen ci amee. suñu amee preuve ne xam nga ko tey nga ko. parce que li jiitu mooy mhm. bul jënd guddi. bul jënd guddi. bul jënd à partir de sept heures huit heures. yoo xam ne nit du dox. bul jënd alalu xale ci alalu xale alalu jigéen bu ko jënd ci góor. Mhm. alalu jigéen bu ko jënd ci góor alalu góor bu ko jënd ci jigéen. c'est que boo respecté yi li nga jënd mu doon heure boo xam ne du heure crime du guddi du fajar tamit mu doon ba heure boo xam ne heure liggéey la ki nga jënd ki nga jënd mu doon koo xam ne leer na ne kii ma ko moom bu la mënul indil facture nga am sa registre boo xam ne moom di nga jël carte d'identité enregistré ko mais li gën mooy mu indil la facture. waaw mais man su fekkee dama jëndal sama jabar or facture yi nekk sama tur. waa mais ma xulóog moom. Hmm. nangu or dem jaayi la ko. nga dem nga ñëw jaay ma li may wax nii luy am ci dëkk bi la. Ah, sa tur la or mais mais xam nga foofu lan la. xam nga fan yee passé dañu am suñ benn suñ ñaari mbokk tëgg yu am lu mel noonu dal maa ngi nuyu euh, Azira Ndiaye Guèye bi ma ñëwee ñu toog ñu waxtaan fekk mooy paa bi nga xam ne doon na wër di di liggéey nii mooy paa boobu voilà man dëgg la man dem naa bëgg wax ak paa bi mhm. man dem naa ba wax ak paa bi bi ma ko yëgee waaw ndax sénégalais la non seen mm, paa bi nee naan sénégalais la mais mi ngi dëkk boor yi euh, xaw ma ci en tout cas làkkat la pour bañu ci defere woon nañ ko mais jàpp nañ ko mais tur bi mu joxe woon nag joxe na tur yu bari moom ay tur yu bari lay joxe waaw tur yu bari lay joxe tur bi mujjee joxe fan yi nu loolu fu mu tàbbi gi non xaw ma biñ ko arrêté point e. bi ñu ko arrêté point police man dem naa ba fekk ko police point ba mhm. bi mhm. parce que dafa am suñ membre yoo xam ne membre tëgg table dañ ko mu dem jaay waaw mooy ki mu doon wax nañ dem nañ dem bala joxe fu bi mu doon joxee daanaka xam naa ne neen amuñ fa dëgg la daf doon sànni nit ñi mu doon wax amul tur boobu jàpp ñi ñu jàpp man bi ma ñëwee bi ma ki doon yor dossier bi ma toogee man dama ne ko ki nga xam ne mën na ñëw jàkkaarloog jigéen moom moom alalam. Mhm. mu def ay mbiram. Mhm. ba nax ko ba tekki ba ndaw soosu tàggoog sagom tekki alalam jox ko ko. kon noonu la doon noonu la daan def noonu demee day ñëw. def na ko ñetti at a ne mi yaa wax ak moom jàpp ko. day ñëw ay ay affaire këriñ ak ay kayitu weex ak i xaalis yooyu la lay jox. ba nga perdre connaissance. mun la indi mais paa bi wax am solo tamit loolu ñu bàyyi ko xel. mu di mm-hmm. euh, kii yor enquête moo mu ne ñu bari jigéenu Sénégal yi ma nax ñu bari ñoom it ay trial waaw parce que ñoom tamit dañuy bëgg ma defaral leen ñaan mhm. ñu ci bari seen ñaan yi may bëgg ma leen di defal du ñaan ju baax defal ma li sama jëkkër defal ma li <laughs> wujju faf mu yóbbu or moom mu jël si sa faiblesse boobu pour def la lim la dugal ci bool bi li ñu naan nax naxa naxekat bu nekk dañ koy nax mhm. parce que yow bi ngay jàkkaar bi muy jàkkaarloog moom mi ngi jàpp ne dafa bëgg mu defal ko nangam jëkkëram wala am na koo xam ne bi mu ñëwee def ko ko ne yaay nangam dama doon suivre dossier bi waaw dana ko yow maa ngi yow yam parce que yow lii nga ma doon sant te li nga ma doon sant baaxut subhanallah ci yàlla parce que loolu mooy nit ñi am na ñoo xamante ne léeg-léegi li ñuy bëgg mu leen di yóbbu ñu leen di nax mm-hmm. Mm-hmm. ma ne ma dellu si waat bi mu jàppee bi mu jàppee gars yi ma toog ak ah? jaay or bi da doon yónni pour ñu jaayal ko tëgg léegi tëgg yi nga xam ne ñoom la jaay dañoo jàpp ñaari tëgg bi ma ñëwee ma ne bi ma ne ko est-ce que doo xalaat benn yoon paa bi nga xam ne am na yéen seen jëm bopp da ngeen koo ragal yéen yéen gendarmerie pour ngeen jàpp ko sax da ngeen koo ragal parce que dem na fa ay affaires yoo xam ne ñoom xam na ni kii am na lu ne ci moom. Mhm. carrément. waaw carrément. Eh, kii bu ñuul la yor li ñu naan kii bu ñuul la yor bon. ma ne ko est-ce que doo leen xalaat benn yoon nit kilifa yi ngeen tëj ci biir giri bi. non c'est grave nañu nañu jël ki ci ligne ba ba noppi ñu dellu si waat. salaamaaleykum. kii xanaa ca mbaar ma la ne. allo allo. ah kooku de doon nañu woo Ndoye Bane nee na dafa yaakaar ne ca mbaar ma la nekk. <laughs> kase ma delloo la kàddu bi. ma ne leen est-ce que doo leen xalaat ki nga xam ne ñëw na fekk nit ki alalam denc ko ci néegam. mu def ko ay mbir ba kooku dem jëli boyetam ñëw jox ko or bi. kooku mënul def dara ba bu taxawalee ak Modou Kassé du jaay ko or bi te du ko du ci bàyyi xel. ah loolu moom waaw. ñaari victime lay am. waaw te paa bi li li mu ko def li kiy wax léegi nga xam ne miin na kaso miinaat kaso léegi kilifa gi nga xam ne tëj nañ ko ay famem keroog ba ay mbinuy famille bi ñu ngi si bunt bi famille paa bi famille ki ñu jàpp ñi ñu jàpp waxuma paa de paa amul famille amul fi famille benn booy la xam te booy bi mu xam ci benn jàkka lañ tase maa ngi dégg ñu bari après di ci wax mais man dem naa ba jàkkaarloo moom wax ak gis naa paa bi lu bari voilà léegi ma wax ne ñun dañoo nekk victime ci ci fànn boobu parce que <laughs> ki ñu jaay ki ñu jaay paa bi kay ki ñu jaay mën nañu def dara ba jaay ñu <laughs> léegi loolu day am ci tëgg yi bokkul ak nag ki nga xam ne moom dafa li muy jënd xam na ne yëfu sàcc la dafa jubadi mm-hmm. am na boo xam ne boobu benn cas bu exceptionnel la am na mais am na ci ñoo xam ne dañuy jël seen matuwaay yëpp mais bu ñu duggee gendarmerie wala ñu dugg police li ñuy jëkk xam mooy ah lii di or la alalu alalu tëgg la wala kii tëgg la nañ ko téye léegi bu ñu ko téyee ñoom dinañ génn xaalis te loolu mooy am parce que ñoom bëgguñu ko ñun bëgguñu ñoom bëgguñu ko leen toroxal parce que munoo ñëw tamit ñu tëj la tëj la société société tëj la ci ay détails da ngay mujj fay dem même bu dee yow tooñ da ngay fay dem. mais li ñuy daaj seen place yi tamit bari na. Ah, waaw bari mais mais nag xarit Guèye ma nga wetu Auchan point E. waaw c'est ça mais na mais nag mais nag je ne peux pas comprendre que ubbi benn mm-hmm. boo xam ne valeur bu 500 millions. te assuré woo nekk fa assuré woo ko jël benn gardien di ko fay ay 50 000. alors soo jëlee benn place def fa valeur 500 millions da ngay wut benn gardien di ko fay 200 000 ou 300 000 mu koy garder. mais munoo jël benn waay jël Babacar mais nga xam ne wala nga jël am teg ko fa jox ko yat mu bëgg laa gaat su gars yi ñooy dañ koy yeew daj affaire bi yóbbu ko loolu tamit euh, euh, waaw xam nga loolu li ñu ciy wax mooy xam nga soo amee place bu cinq cent nekk du cinq cent millions yi nga investir la ñuy xool li ñu war a xool mooy ñaata revenu ban revenu nga am ci cinq cent millions yooyu mhm. or bokk na ci li gën a néew liy ruus si or or li ngay def investissement bi ngay def li ciy ruus du bari tëgg yi bu ñu la waxoon li ñuy am ci gramme or bi ñu la jaay. Hmm. da nga naan déedéet. dina la jaay un million deux millions bu ñu ne lii lañ ci am da nga naan déedéet li ëpp ci yow lay dellu si waat li ëpp ci yow lay dellu si waat bu dee ñun tëgg taabal yi ñun li ñu am ci ci or mooy main d'œuvre. xanaa Mass Touré tëgg taabal la. Mass Touré sama jarbaat la mais bàyyi ma audité ko ba pare. <laughs> sama jarbaat la koy nuyu. Hmm. ñu ngi koy nuyu mais euh, tëgg euh, euh, mi ngi mi ngi marché ci leen. waaw mais tëgg taabal mooy kiy toog ci liggéey xëy na moom day jaay. mais jàmbar la. mais tëgg taabal mooy ki nga xam ne moom day toog di liggéey bijou bi. waaw mais ñoom ñun ñëpp chaîne la chaîne la boo xam ne ñun bu ñu defee rek ñoom ñooy jaay. waaye tëgg bu mënul tëgg gaawul de. gaawul tëgg bu dul tëgg. Mm. loolu loolu bare na. am na am na am na am na ñoo xam ne jënd jënd ji na am na am na bari na ne koo ci dugal mbaar mu tëgg waaw bu du yàgg buy tëgg tamit du yàgg fa yàgg patron lay doon <laughs> biir mbaar mi dafa tàng daa bari secret waaw nga nekk ci koo xam ne dangaa nekk gone cest à ñoom li tax seen liggéey garaaw waaw mooy da nekk gone bàyyi indi la famille mooy yor liggéey bi mu dem ba beneen famille ñëwaat fekkaat leen fa beneen famille ñëwaat fekkaat leen fa muy lu rafet par exemple man tey su ma nee laa ooru kër ngumb gay lañ ma ngéntee bàyyi Kumba Joor waaw waaw te ba léegi looloo ngi dox macha allah. xam nga loolu dafa doy waar. donc mooy que ñoom dañuy yàgg ci biir mbir mi ba nga xamante ne ni xam nañ fi ciy metti yëpp donc bu ma bu ñu leen jàppalee. war nañu ko mais mais yéen it dañu leen di liggéey ba jàkkaarloo yéen jël seen or. merci ma la wax ci sàcc ma bëgg a wax ci sàcc gi nga wax. waaw maanaam li ma la doon wax foofu moom laa lay wax na la. bu jë gardien yi ñuy jël hmm. ñi ngi jël gardien da ngay gis koo xam ne barki dem rek maas mi dem na place am fekk visite boo xam ne sax day xëy suba ba ngoon hmm. taxaw ci buntu bi hmm. dañuy am ay gardien mais sàcc yi ñoo toll ci niveau boo xam ne da ngeen leen a fayul man mii tey soo ma jëloon teg ma sa mbaar ma mm. di ma fay cinquante sàcc mi ñëw dam ko dugal da ngay dem waaye damul <laughs> ko jëlal bu ma kenn du ma rey man kenn du ma rey. bu ma la fayoon 500000 francs. ah bu waaw su sàcc ñëwee ëpp la ay matériel. da nga naan ko dugal waaw mais damay may ne dinaa fexe de man soo ma doon fay 500000 dinaa fexe def loo xam ni sàcc du am xelum xalaat ñëw fi est-ce que problème bi ci fay la nekk est-ce que nekkul ci sécurité boo xam ne ñun attanuñ ko sécurité maanaam est-ce sàcc yi léegi nekkuñ ci niveau boo xam ne mhm. ñun privé yi mënatuñ leen dékku mais yéen da ngeen war a egg ci niveau boobu ay ay millions soo ko yoree da xam nga léegi maa lay wax ne la maa ngi lay wax ne la jafe-jafe yi ñu am par rapport ak liggéey bi xam nga nit ki pour mu mën a def investissement ci place am mu jënd machine mu jël jël gardien bi nga wax fay ko deux cent mille nga wala mu ji fay ko lu ëpp loolu ay revenir ah, ñi ngi naan amin de maanaam moom moom moom ci boppam day yëg boppam ci métier mi mais su nekkee ne fi mu nekk nii li ëpp ci bijoux Sénégal li ñuy takk importé la ah question baa nga ah, jigéen ñi de importé bi la li local bi moo ñu gënal wala importé bi non local bi moo ñu gënal importé bi moo gënal jigéen ñi dafa am wala jigéen ñi local bi moo gën du ma moo gën moo gën gënal moo gën local bi moo gën ci lépp ci lépp mais problème bi mooy jimboo ngi nii baaxul te ñu ngi koy lekk chaque jour. daal leen ma ko du fu ma dem dinaa ko wax. baaxul te te nit ñi ñu ngi koy lekk chaque jour. d'accord problème bi mooy importe euh, importe ak bisu bi ñuy takk fii lenn moo leen ji wutale. lu koy wutale. mooy bii dafa dugg avion bii nekk fii rek xañ ne bii Modou Kassé mi ñuy gis ci mbaar bi moo koy liggéey. dañ ko xeeb mais bu dee ci ci rafet. ci garantie waaw ci finition ci garantie ci lépp bii moo ëpp te en plus ci yombaay yi tamit bii moo gën a yomb même bu dee da koy dem bay jaayaat li ngay perte ci bële doo ko perte ci bii mën ngeen gis benn bijou bu importe boo xam ne importé la ngeen tëggaat ko ba mu niru ak importé li ñuy wax fii importé ay tubaab ñoo koy tëgg ci seen loxo te ñooñu dàq ñu ñu tëgg te indien yi ñuy wax man démb rek téléchargé naa ay bijoux yu bari yoo xam ne suñu samay ami Facebook ay indien la ñooy tëgg bijoux indien yi seeni loxo lañ koy tëgg mais semi fine la ñuy def mooy dañuy jël ci chaîne yi nga xam ne ki boole ko ay ay ay décor tëgg ko suñ ko tëggee dinañ ko jamante indi ko ñoom ñu dem importer ko indi ko soo ko gisee mën nga jàpp ne du lu machine defar am na lu machine defar nag mais lu ci ëpp am na loo xam ne nit ñi ñoom ñoo koy defar ci seen loxo. xañ na benn benn benn différence lañu am mooy ñoom am nañ benn benn benn niveau bu yéeg ci wàllu xarañte ci wàllu matériel. boo xam ne li leen ko may mooy gis nañ bopp ci gis nañ seen bopp ci liggéey bi ñu ngi liggéey ñu ngi jaay ñu ngi investir ay machine ay machine di yokk parce que dañ ne bijouterie fi mu nekk bu doon nit la ay at ci ginnaaw da doon raam mais fi mu ne dafa taxaw léegi nag loo xam ne yow mi ngi doon raam bu dee Sénégal xaw dafa nekk dafa nekk dafa taxaw di dox waaw léegi bu nekkee ne ñun ci wàllu matériel ci wàllu outil ñu ngi ñi ngi toog ba léegi ñu mën a dajeeg jàkkaarlook ñi nga xam ne ñoom ñooy indi fii importé bi te te bijouterie bokk na ci bokk na ci euh, maanaam métiers yi nga xam ne. ñoo gën a cher ay matériel moom moom médecine ñoo yem daanaka ay matériel man matériel yi mujjee génn. parce que ñoo yem dafa cher te li ma li ñu seetlu aussi mooy balaa maa dem régie boo ñëwee ci tëgg Sénégal dañu am seen loxo nga dem tëgg boo xam ne dafa yàgg Abidjan. dafa am loxoom. Mhm. nga dem tëgg bi nekk Gabon dafa am loxoom. Mhm. di ngeen xam ne tëgg leen muy chaîne yu sew a sew a sew yi yi nga xamante ne moom la président yi di mayante ak yeneen yi ñuy defante kado ñoom rek ñoo ko mën a tëgg. Mhm. moo taxoon ku fee soxla woon leen. ñoom rek ñoo ko mën. Mhm. mais yii xam nga Sénégal lu xam nga yooyu yëpp yooyu yëpp daf daan ñëw fii Sénégal tëgg di ci jëriñ. Alpha lu leen defal. defal na leen lu ko benn mhm. xam man man mi xam na Côte d'Ivoire ñun def nañ Côte d'Ivoire ñaari at. mais li mu wax léegi moo am mooy fi mu nekk boo demee ay Sénégalais rek ñoo fay tëgg te lépp li nga xam ne mooy liggéey xëy jaamu yàlla ci lañ nekk. te man damay wax ne bijouterie Sénégal bu nekkee dañu bëgg am Sénégal gu soxale ko. suñu sukkandikoo ci bijouterie Sénégal mën na nekk. dëgg parce que ñi muy wax ni yëpp li ngay wax nii Mali Côte d'Ivoire Burkina Gabon ay sénégalais ñoo fay nekk di tëgg. macha allah jërëjëf kontaan nañu xel dafay dem ci soxna Tabara Tabara nag sunu xarit la. ñu ngi fàttaliku suñu yaay ajaratu bi ci loxo yal na yàlla yóbbu ko ci aljana yi gën a kawe macha allah yàlla yërëm ko bu baax a baax a baax soxna mi yanduur yow itam ñu ngi wax salaamaaleykum dugg biir régie fii nag moom mooy maamu jaaykatu urus yi ndax fii boo seetee 1945 fekk na sunu maam yi nekkoon fi. waaw mais fii ci Sénégal njaayum wurus waaw risque yi moom bari na moom risque yi moom bari na parce que li tax mu doon ay risque maanaam amuñu comptoir boo xamante ni saa yu ñu bëggee urus dem ni fii lañ koy jëndee. pour mën koo def li ñu bëgg. te loolu nag bu fekkoon ni amoon na difficulté yi ñu am nii duñ ko am. parce que ñun ay gor lañu. gor lañ yoo xamante ni wax dëgg yàlla bëgg nañ lu dul lu yiw ak lu tegu ci yoon. ñu koy doxee. li nga xamante ni mooy urus bi am ko jafe na ni mu jafee nag mooy que ni nit day koy jaay mu ëlbatiku amaat soxla ñëw jaayaat la waaye li nga xamante ni mooy suñu difficulté te ñu nekk sénégalais mu nekk fii ci Sénégal ñu naan urus bi mi ngi feeñ Sénégal fii depuis te ñun mënuñoo fexe ba am ci am accès kon wax dëgg yàlla accès boobu bëgg nañ cee am lu ñu gënal ba ba ba mën cee faj suñuy aajo faj suñuy soxla mais boobaak léegi nag maanaam metti naa. état li mu war a njëkk def mooy jàppale tëgg yi ba comptoir comptoir or am ci réew mi ba nga xamante ni képp bépp bijoutier buy liggéey boo bëggee or da ngay dem ci comptoir bi jënd fa boo ñëwee toog sa place liggéey daal joxe sa sa commande mais comptoir boobu nag yaakaar naa bijoutier yi ñu ngi ciy topp booba léegi nag amagul. ah damaa ñëw pour jënd si or. kii daal sa place la. sama place la te Pape moom daf ma yàgg jaay or. wax dëgg yàlla presque dix ans mi ngi may jaay or. parce que or denc la comme nii lii bu ma ko jaay ni bu ma amee soxla mën naa ko jël jaayaat ko. yéen nan ngeen di def ak euh, ñi nga xam ne dañuy ñëw sàcc or ba pare ñëw la lu ko jaay naka loolu jafe ne jafewul parce que kenn ku ne war ngaa xam. li parce que saabu bu nit ñëwee yor wurus di la ko jaay te mu wóor ne kii li mu yor mënul la justifier ne moom moo ko moom loolu soo ko jëndee yéen ñaar yéen a yem parce que or dafa nekk lu sensible loo xam ne nii ñun ñu ciy liggéey xam gin ko xam tax na danuy moytu bu baax a baax a baax parce que ni ngay moytoo mooy dangay jaay jigéen mu am soxlaam wala mu takk biisu bi juróomi at fukki at mu yàqu mu ñëw jaayaat la ko nga togg ko mën ko defaraat leneen métier mu mën a doon boo jiitalee sa xel rek yàlla mën na la see dimbili beneen bi mooy li ñuy dajji seen place yi dafa bari da ngeen di bàyyi or bi ci seen place yi sàcc yi ñëw dajji ko jël or ba yóbbu yooyu noonu yooyu ah, est-ce que am ngeen ci solution. non solution amu ci parce que or mënoo booy wàcc gàddu ko yóbbu soo ko gàddoo yóbbu def ko ci sa oto ñu kar la fital la jël ko mbaa ñu kar la dóor mool ci sa pare-brise jël ko loolu abul sens. léegi lan mooy tëgg table. non xam lan mooy tëgg table parce que tey si tey boo yoree sa wurus yow mi nga xam ne yow yaay exposé di jaay ki nga koy jox ci taabal ji lay toog kon ñoom ñi nga xam ne ñoo ne ci taabal ji ñun la ñuy liggéeyal. lu tax sénégalais yi ci lépp. consommer local ci lépp ñoom importe moo leen a gënal li nga xam ne moom moo di local bi xeef sa bopp la wala lan la. déedéet c'est-à-dire nit ñi ñoo desee man marketing parce que kenn ku ne sa alal ji nga moom moo la war a gënal alali jàmbur te ci jamono yu njëkk yi or massif li mu daan représenté or importé mënu ko représenté parce que massif moo gën diis moo ëpp mujj mais nag. fi mu ne àdduna day dox comme àdduna day dox nag faaw nga dox ànd ak moom parce que jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo yor seen xaalis di jënd tey boo tegoon local teg importé dañ naan la importé bi moo nu gënal peut-être danoo xamul li ci biir parce que importé baax na mais local li nga xam ne yow soo ko jëndee ki koy tëgg doomi réew mi la ci réew mi la or bi jóge kin koy jaayaat mu duggaat ci réew mi loolu njëriñal réew mi la. kooku question de marketing la rek. mais design moom fii la fekk baax muy Sénégal ndax suñu doomu réew mi foo ko mënta takk maanaam loo ko mën a takk rek ci xarañte rek ñoom mën nañ ko tey ñu ngi koy def ba mu baax. am na ci femmes yi mu waxtaanal nee nañu soo leen joxee seen or Sénégal soo moytul sax ñu wàññi ko rax ci leneen soo leen ci fekk raxas raxas rek nga leen nga leen leen santoon. non koy xeex parce que loolu moom métier yëpp la am métier moo dem rek am na fa ñuy gàmmoo am na ñuy raas dem. métier moo dem am na ñu jub am na ñu jubul. maanaam waxin la rek xam nga nit ci métier boo man di dem am na ñoo xam ne ñi ngi jubal am na ñoo xam ne ñi ngi ñi ngi kii mais kii jubal boo ko bàyyi woon kilo or boo ñëwee kilo or boobu la lay delloowaat. ci la maanaam àdduna moom noonu la ko yàlla bindee métier booy dem fekk fa ñëpp journaliste bi ngay def nii rek am na ñoo xam ne maanaam ñu ngi ciy def loo xam ni naka sudul noonu la ca yow mënuloo ci dara quoi mais maanaam nag dañ koy rax ak yooyu parce que ñun boo ñëwee ñun or bi ñu lay jaay mën nañ la ko contrôler ba mu jàpp bu la neexee dañ lay bindal facture ki la bindal facture garantie la jaay la kay yaakaar naa kooku amatul risque amatul lu mu ciy nëbbu. xam nga liñ la jaay defal la facture defal la lépp yaakaar naa loolu amatul lu luñ ci luñ ciy kii wala lii <laughs> waaw am na luñ ci laam-laamee yaakaar naa. ñooy patronat yi. kon mbokk mbokk yi ñoo ko gisandoo ñu ngi remercier bu baax a baax Ndoye Bane mi nga xam ne moo dem demoon defi élément bi ànd ci ak tëgg table yi Ndoye Bane looy dolli ci élément. ah mais waaw gis nga lépp xajul woon ci ci ci mën ñu ko wax ci reportage bi mais gis naa ne daal. ñoom euh, itam waaw waaw waaw ñoom gis naa ne daal ñu ñu ñu solidaire lañu. ñoo xam ne dañoo ànd de xàccandoo dóorandoo maanaam kenn ko ci euh, laal rek laal nga morom mais euh, Sénégal dafa am gis naa loo xam tamit li yàq li yàq yeneen groupe yi euh, mën na yàq lu mel ni ki seen maanaam seen tëgg table yi parce que seen association yi am na beneen association boo xam ne boobu laa dégg mu naan mooy association national xaw ma kii ko jiite te moo nekk xaw ma lan solution fii nii sacré voilà yow nga jiite beneen xaajaloo boobu ngeen xajaloo pour ka mun leen a nekk benn groupe boo xam ni mhm. benn association boo xam ni benn nit moo koy jiite ñëpp topp ci ginnaawam lu tax loolu mun a am est-ce que du yaakaaroon ni loolu mooy mooy tax li di xeex mën a mën a mën a mën a am njariñ waaw xam nga xaajaloo amu fi xam nga xaajaloo mooy xëy na nga bokk ci nit nga bokk ci dara xajaloo bi gën a metti mooy nga bokk ci dara bu gisoo sa bopp nga détaché wu mm. dem sos leneen xëy lu bari fii ñuy parti politique yéeg yu baree bari noonu lay demee mais ñun loolu amu ci am na organisation bu fi nekkoon bu ñuy wax ANBS mm-hmm. Ibrahima Niang moo ko jiite mm-hmm. moom moo fi nekkoon doon moom moo fi nekk ba léegi moo fi nekkoon Moussa Niang moo ko jiite euh, ba ba léegi mm-hmm. xëy na xam nga àdduna loolu àdduna noonu la suñu borom bi mu taxawalee àdduna ba léegi chaque jour day am woote boo gisee yonent yi dañuy ñëw par génération génération ku si nekk dafa am offre booy booy booy booy teg looy teg ne lii laay woote mhm. xañ ne ñoom bi ñu ñëwee am na liggéey bu mag ndax ñu ngi naan góor gi nga xam ne moo ko sosoon këriñ la soxla woon mu jafe pour ma bañ ci dugg mu dem bu metti mu am lu mu yëg xam ne il faut mu taxaw ay mbokkam mu daal di taxawal association boobu këriñu tëgg bi ñuy tëgg bon bi mu ko taxawalee mu ciy dem di dem ba ñoom ñu mujj doon ko ñu nit li taxawal li indi tëgg taabal bokkul ak yeneen kii nga xam ne bu ci nekk pas-pas la du du ñoo dañoo taxawal ñu taxawal déedéet bu ci nekk dafa am ay nit ñu am vision ci mbir ne lii fii fii lañ ci war a taxawoo mais ñun ñëpp ñoo bokk fu ñuy sotti da ngeen a gisul seen bopp ca bee no dañoo bokkul lu ñuy défendre parce que bële moom laa lay wax bi ñu ko demee dafa dem ba xam nga dafa am jooy li naan kiy jooy li mi li koy jooyloo moom rek moo ko mën a yëg waaw moom rek moo ko xam te parfois ni dina yegg ci niveau boo xam ne. métti mhm. métti yi nekk ci suuf du ko yëkk moo tax tëgg taabal yi jóg ñun bi ñu demee 2012 ak léegi ay xale lañ avant ñuy génn Côte d'Ivoire dañoo dem jóge nañ Touba ñëw ba biir dakaar fii. Mhm. ñu gis tëgg yi tëgg taabal yi ñëpp toog métier mi bëgg dem ci wàllu commercial maanaam nga xam ne ñi ngeen di tudd ñu ci ëpp li ñu gën a favoriser mooy jaay ak jënd mooy dem Dubaï wala dem turki ñëw indi biisu jaay. bàyyi métier mi moo mu mu kii importe bi ñuy wax ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw vitrine dama leen koy wax lu bari ñoom ñoo yor marketing bijou lu ñu bëgg jaay jigéen dañ leen koy jaay bés bu ñu xëyoon ñoom ñëpp ne manko na bijou local rek la ñuy jaay jigéen ju taxaw ñu ne la ah bii nii la bii nii la mën nañ jaay léegi yëkkati bi euh, consommé local léegi ñun xale yi bi ñu gisee ne lii bijouterie bokkoon na ci métier ëpp doole ci Sénégal léegi nit ñi ñu ngi koy bàyyi di dem tukki di nangam ni ko waral mooy tëggatuñ ñi war a joxe ñu tëgg ñu ngi génne main d'œuvre bi du ko yóbbu extérieur te main d'œuvre bi ñuy fay foofu li ñuy fay fii moo ko gën a néew te mënoon nañu organiser wu ñu am li ñu am fii ñu ñu ne pourquoi pas ñu taxawal suñu kuréel goo xam ne tëgg taabal rek lay doon lay défendre mooy tëgg yi nga xam ne ñooy hors-fer mooy ñiy toog di liggéey waaw di liggéey est-ce que bee bokk ngeen ci association association tëgg table yi est-ce que bokk nañ ci association bi nga xam ne mooy association bu mag bi xam nga ñoom ñaar yëpp ñun ñaar yëpp association nationale ñun jot nañ la 14 bi passé lañ jot suñu récépissé association nationale la 14 euh, bële passé mais association bii nii ma lay wax nii yàgg na ah. waaw yàgg na mais xam nga. xam nga su président doon woo nii damay woo association des bijoutiers ci Sénégal su ma su fekkoon président da leen di woo kan mooy dem. kan mooy dem dem ngay wax. que may may mais am na xam nga su ne président bi laay woo. waaw mais xam nga xam nga comme li mu bëgg a wax. yéen bi ngeen jotee bi ngeen juddoo yàggugul. waaw bi ñu juddoo yàggugul. waaw mais bu dee ci wàllu représentativité. Uh-huh. manam ci représentativité. Mm-hmm. ak ci liggéey. Mm-hmm. tëgg yi ci seen bopp. Mm-hmm. defar reportage xam nañ kan lañ war a woo. Ah. parce que ma wax la benn. ca njëlbéen de nee nga famille ngeen. dama ne la ma wax la benn. Ah. non non famille bi famille gis nga. la yëngal fee moo yëngal. fii non non waaye waaye ko nag balaa nga naan dama na. Mm. ñaari association képp amuñu problème loolu la nee na ñaari association. non non na problème non na problème xam nga ah. Sénégal masla bi. Mm. ak ak la raay la da ciy am. waaw mbéj la xoola pes la pare jox la carotte dafa am. xam nga mais association bi waa jiite kii nekk fii ma la doon wax sànq boobu association association bu yàgg la moom nga may wax naa la historique bi historique wax leen un am na 2017 lañ taxawal association bi lañ dugal suñu kayit kañ nga kayit gi 2019 bi léegi 2020 bi léegi donc amagu leen un an waaw amaguñu un an voilà xam gi ci boppam association bi est-ce que magu la non association mag. Ah, ko association bu mag la. donc est-ce que gënul tey jii ngeen booloo lépp même su fekkee sa bii day continuer ngeen booloo yéen ngeen dem bokk foofu. mais terewul yaa ngi yéene ngeen rek seen loolu xam nga lu tax du mën a nekk waaw nga lu tax du mën waaw mooy gis-gis bu wuutee ànd du yomb ah kon yéen bokku leen gis-gis non bokkuñu gis parce que bokkuñu lu ñuy défendre hmm. maanaam ñun dafa am ci lu ñu kon ñee ñooy APR yéen lu ma bëgg wax mooy APR ak PDS non du PDS ak jël APR parce que PDS dem na parce que fi mu ne nii <laughs> waaw mën nga ñu jëlal benn léegi yóbbu la foofu <laughs> di mën nga ñu jëlal beneen mais du ñu ñaar ñëpp mais mën naa la wax ne la dañu bokkul ay gis-gis ay nit bu ñu bokkul gis-gis pour ñu ànd du yomb. Mhm. te génération yi bokkuñu tamit. te ñoom def nañ seen wàll ñun dañ leen wax ne. ñoom kon da nga bëgg wax ay mag rek a jeeg. waaw bari na ah, bari na ay mag bari ñoom ñoom dañoo jeexal. quoi bari na comme ma jox la exemple ma jox la ma jox la exemple. ah yow da ngaa ba wax ma bëgg si la ci la wax xam naa loolu nga bëgg mais dinaa la si fekk si. ñii dañoo jeexal pour wax la exemple li tax ñu pour ànd bi du yomb mooy ñu jël exemple ci mbënd bi euh, Covid bii ñoom jàmbaar lañ ñu bare bari ñoo yore laam ñi ngay tëdd ñoom borom doole ci lañ bokk dajale nañ 3 millions ñu leen di jaajëfal dem yóbbu ko ci ministre bi. Ah. mais ñun tëgg taabal yi nga xam ne ñun xaalis la ñuy nekk di taxale. nga xam ne tëgg gi dañu bëgg a xeex ba euh, marché local bi ñu am fi mu nekk nii ñu ngi am. 1 pour cent ci consommé local lañ nekk. fi ne nii boo demee marché Tilène marché Sandaga 1 pour cent la ñuy jaay ci local. Hmm? un pour cent du sax am na seen vitrine un pour cent du fa nekk ci wàllu local ci budget local ah. mais loolu lu sérieux la du lu ay caaxaan maanaam lu sérieux la loo xam ni ay nit ñoo ciy dundu ay yenn yenn ah nit dajaloo di di di di di mën naa di sacrifier benn ñoom ñooy promouvoir euh, euh, euh, bijou bijou e, e, e, kii bi ñoom non xam nga xam nga li waral loolu xam non du mën a ñoom du association ñoo koy promouvoir non xam nga xam nga ay nit bu dee am nañ droit jël seen xaalis dugal ko fu leen neex mhm. loolu moom nit am na droit mhm. parce que adduna boobu lañ nekk mhm. mais ñun tamit am nañ droit défendre suñu métier li ngeen woote non défendre suñu métier kon c'est que man su ma bëggee su dafa mel ne dafa moom ci ay waxam ci ay waxam li ma ci jàngal mooy association bee waaw ñoom duñu def conseil local mbaa li suñ koy defet bariwul dañ koy def ñoom ñooy dund non bu ma wax loolu ma waxul dañ koy ah, def man loolu laa jàng léegi tey su ma dellu si woon ci yow di la laaj ndax si sa biir wax yaa ngi wax waxu pour cent ci dara ndax tëgg local bi mi ngi dox lan nga ñuy tontu. doxul. doxul xëy na malheureusement fi mu nekk nii sax at yi tëgg taabal jógee fan yi nga xam ne mi ngi mi ngi mu ngi mi ngi def lu mu mën ñi ngi def ay ay plateau. Mhm. ñi ngi sensibiliser tëgg yi. waaw pour ñu dellu si waat seen responsabilité ci tëgg lu rafet. ci tëgg lu baax. parce que loolu lañ jiital ñun ñun dañoo def autocritique maanaam ñun fi ñu yëg si fii ñu ñoo ci jiitu suñu responsabilité la. Mhm. ba pare doog a wax jigéen ñi ah yéen kat. nan ngeen di de bàyyee li nga xam ne seeni i rakk seen doom ñoo koy tëgg fii. ngeen dem di jënd loo xam ne mën naa am ku koy tëgg sax xamu leen ko. parce que nag suñu fàttalikoo dellu tuuti ca jamono yàgg ya danga daan gis. sunu waajur yi li leen daan neex bokk na ci jàbbante ci tëgg ba di xaar tëgg bi pare di xaar fuñ ko raxasee du mm, woon mm. ay tëgg yoo xam ne dañ ko daan indi tëggu fii la woon mm. te ku ko ci gis ci sa bagage muy tëgg boo xam ne sa maama ko daan takk da ngay gis valeur bi dono la ah, du ko soppi du ko changé danga naan lii dama am beneen dégg dama am beneen dégg-dégg dama am beneen dégg-dégg moom ci fi muy waxee bala ngeen di romb foofu waaw ci fi ko ndooy di laaj mu xaw a bëgg a jaxasoo mais pour man lu yomba lijjanti la xam nga métier dafa am ki ciy takk li ñuy wax wàcc raxasu dafa am. am na ku ne ci ligne bi allo salaamaaleykum wa waaye am na ku ne ci ligne bi. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Euh, maa ngi nuyoo. ngi lay fay fay. émission Wareef. yaa ngi ci biir. waaw na def. ñu ngi sant yàlla bu baax. maa ngi tudd Cheikh Gueye di wootee Ndar. di wootee Ndar bisimilah. ah Cheikh nekk président. Cheikh Gueye yow mos nañ la fi dalal de. très bien merci beaucoup dalal nga ma foofu. Mhm. kon defe naa ne bi nga ma fa dalalee yàlla yàlla yàlla ay yaxam sedd muy soxna Degene. amiin amiin moom ma dégaloon. Mhm. yéen a ma dalaloon. dëgg la kon defe naa ni ba ñuy taxaw ñun ci association di wax bijouterie sénégalaise du tey. Mhm. nit nag mën nañ la invité ci plateau mais da ngay da ngay mën mën nga wax parce que ñun association mooy ko xam ne ku mu neex nga créer association. mais ñëpp xam na ni Sénégal. association nationale des bijoutiers du Sénégal. Mhm. mooy association moo jub depuis depuis mille neuf cent quatre-vingt-quatorze. Mhm. te préoccupation yi ñuy wax noonu yëpp nag moo ko tax a jóg. Mhm. parce que tëgg boo si génne kii toog si taabal ji amatul tëgg. est-ce que. président bi nga xam ne moo ko jiite mi Ibrahima Niang. bi nga xam ne moo jiite ANDS te nekk takk te naa ndoy baan nga ñëw fa nga sa kaw nga xam ni bu dee bu dee tëgg rek lu def ko si si si jeune Sénégal. day jëli ay machine indi ko biir Sénégal. Mhm. xale yu bëri yuy liggéey tey moom moo leen formé. kon aji caam. mu Ibrahima Niang mu mu la solution di grâce. Mhm, jëkkëru aji caam waaw. jëkkëru aji caam tey dama ni. yow bàyyil sama aji caam sa aji ci gars la. loxoom la ñu jaar. Mhm. kon kooku defe naa ne bu bu jiitee association tëgg moo tax mu jiite ko. est-ce tëgg bi nga xam ne mooy tëgg taabal bi. ndax ñu li ñuy xeex mooy lan mooy naka la ñuy def ba am or. tey jii ubbi nañu comptoir boo xam ni xeex nañu ba ñu jox lu comptoir boo xam ne ngi fii suma jum mën nañ leen yóbbu tey ANDS moo ko créé moo ko taxaw waxtaan nañu benn société bu ñuy wax Sabodala Gold pare na pour jox na lu toll si cent kilogramme or TVA bi moo ko téewoon te or boobu yëpp bu ñu koy wut tëgg toog ci taabal ji moo tax kon lii bu ndoo daan wax moo doon dëgg c'est-à-dire ñaari association yi association bi judd barki dëgg bëri si bokk ñoo xam ne tey dana mujj jékki-jékki day day day démissionné nañu ñëw ñëw si benn association parce que xam nañ ne ñaar yi dafay yàq en réalité wax dëgg loolu baan damay d'accord li mu wax association yu bëri amul benn njëriñ parce que ñun ñëpp ñoo bokk li ñuy xeex mhm. li ñuy xeex mooy lan mooy nanu fexe ba tëgg yi am or nanu fexe ba recel bi jóge fi nanu fexe ba lo consommer local bi bëre mhm. kon nous avons le même combat mhm. nit nag bu ay nit mën nañu xëy mooy li mu wax moo ñoom ñoo xam li leen tax a jug ñoom ñoo ko xam mais ñun ñii di wax ak yéen ay tëgg lañu yor ay mbaa di sëgg ci mbaa yi donc yore euh, bëgg bëgg Sénégal yëpp sëgg sëgg jëm sa kanam te it ñëpp xam nañ ni bëgg dem comme ni mu ko waxee lépp lu ñu woote Sénégal ñu ngi si lépp luy doxal réew mi ñu ngi si kon daal objectif bi na am ñun mooy nanu fexe ba tëgg yi am or comme ni mu ko waxee ndax or bi ñu ngi koy defee Sénégal mais mais ñun amuñu si accès kon bëgg na nañu fexe ba am accès si or boobu kal bi nga xam ni amul Sénégal bi lay jógee ñu ngi bëgg mu ñëw tëgg yi am ko kon je pense que ni lu li naan lu kenn mën ñaar moo ko dàq mhm. kon je pense que ni comme ni ko Ndoye Bane waxee ñu toog waxtaan am benn association répondant moo gën ñu naan fii association tëgg tëgg bu ne tëgg table kenn euh, association vitrine mhm. kenn association nangam loolu moom mooy lan waaw mais mais mais pour man waaw pour man moom fi mu waxee waaw yow foofu yow da nga faa am liggéey bu rëy rëy xam nga lu tax mhm. yow ak Ibrahima ñaay yëpp waaw parce que xam nga dafa wax wax ju leer daf na la ki jëluy moo xam ki dee ca kër ga dem na dem na mais damay continuer li ma koy wax yóbbante ko ko parce que mës nañ ko dalal muy jooy gal bi muy jooy ak di jooy que ne TVA bi moo tax jotuñu ci or bi ba doon wax ne ñi ngi wut comptoir nangam sangam kon ñun bu ñu demee tey ba nekkaat ci waxtaanu consommé local mm-hmm. dégg mu ne ñoom jot nañ ci lool dañ koy sante yàlla jot nañ ci ndax nee naa leen jot ñu jot ne ñi ngi ci yoon bi di jot or boobu noonu xam nga dama lay wax ne la euh, damay kontaan fan yi yëpp ci seen thème yi parce que day yëkkati loo xamante ne bu ñu ko defaree fekk ay at buñ ci toogaatee di ci wax ñëpp dinañ ci gis seen bopp ndax dina neex mhm. ndax xam nga ñii lu ñu jooy dañ ko war a jooy ndax wàcc raxasu dafa metti koo seen muy dem xam nga lu muy wër xuloog maçon xam nga kenn bëgguta xuloog ki lay tabaxal fi nga dëkk mhm. waaye bu ñu wax xuloog maçon mooy maçon bi mooy wàcc raxasu mais su génnee mu mën a rafet mais tëggu taabal ki koy wax mooy ki nga xam ne li Eva di wax da daan yor sa wurus man baat boobu damaa neex wurus dem toog di xaar tëgg bi defaraatal la lonkal la chaîne bi defaral la tëjukaay bi defaral la leneen te bu fekkente ne waxuñoo tëgg bi nga xam ne moo nekk ci table bi pour man consommer local waxatuñ ko ci tëgg gi mm, parce que amatu fa ndaxte nag dafay yomb man ma sañ sama jekk li ngay wax sous-traitance ma sañ sama jekk man toog sol sama jasneer toog jàpp sama njàmbur xaar ki importe ñëw indi ma jënd lonk di jaay man taxuma ci mm. damaa wut bénéfice rek mm. su boobaa mën nañoo dem ba Mami Diop mii nga xamante ne tey ma nga jóge ca Thilmakha Kër Amadou yàlla ñëw yore bijouterie di jaay kon dañuy bañ xëy na métier mi tasaaroo moo tax ñuy wax tëggu taabal ak leen ndoy baan baal baal ma foofu baal ma foofu ma ñëw tuuti Ibrahima Niang ak moom Cheikh Gueye mi woote woon sànq ak ñeneen ak ñeneen ñi mag xale mën na réer xale mën na def dara xëy na nga ne dafa xamul wala nga ne xëy na li may xeex dafa xamul njariñ la waaye Eva koo woo ngeen bokk benn taabal toog waxtaan mën ngeen a bañ a réeroo kon ñoom ñoo war a jóg waxtaan ak ñii woo leen ñu bokkaat toog ba sax boo xam naa ne réeroo mënu fi am xam nga lu tax adduna ñaar boo génnee law bi tëgg ci gën a bokk koo ci doon xas tay keneen ki ci da song la ñoom ñëpp a bokk menn maam mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. te kat kañ a ñaawul baayam la nuróo ñoom ñëpp a bokk li ñuy wut jërëjëf mami mami Linguère daanaka ñu ngi nuyu kii woote léegi waaye xam nga diversité ak différence dafa am lu bare lu muy defar tey concurrence dafa baax waaw maa ngi ñëw ñun duñu ay tëgg duñu duñu ay tëgg sax wa yow waxoo man de waaw fu mu ne nii moom ma maay mbokki mbokki dédé joxaane dem naa dem naa ngay jaay or ma xam la dafa dafa baax am na ni ñu koy waxee le linge sale am na fenn ñu koy mm. raxasee mm. mais ñun fu mu ne nii li ñu soxal mm. te li ñu bëggoon téléspectateurs yi xam ko mooy ndax am ngeen ci or bi nga xam ne ñun dañu koy dégg ndax ñu ngi biir Sénégal du ñuy tëgg xamuñu ci dara waaye dégg ne suñu Sénégal gi boo demee ca côté Sabadola Tamba fële. effectivement da nga da nga am or. parce que or boobu ñun. lan ngeen ci am yéen. moom la intéressé effectivement parce que 2013 su paree pare président waxoon nañ di leen. xam nga loolu laa wax waaw mooy mooy mooy cent cent grammes yoo jël. cent grammes yooyu jël 5 grammes. d'accord loolu la doon wax léegi. xam naa ne tuuti ma dellusi si. pour wax ne. Mm-hmm. comme li nga wax léegi ñun ñëpp ay mbokk lañ. ñun tooguñu fii pour defendre kenn wala nangam. Mhm. ñun métier la ñuy wax ci métier. dëgg la dëgg la la ñuy wax. macha allah métier boobu nag xëy na léeg-léeg nit doomu aadama mooy jàpp ne dama koy wax suñu mbokk jaaykat yi nga xam ne dañuy jaay dama ne leen ñun li ñu leen di woo pour ñu consommer local. Mhm. bisu ñun bisu bi ñuy defar buñ ko buñ ko jaayee ñoom. ci la ëpp bénéfice te ñu ngi may déglu ñoom ñëpp xam na li may wax ci la ëpp bénéfice que importé bi ci. dara nekku ci ci ñoom ñu koy jënd te am na coono am na risque. waaye ku wax ci ñoom wax ci jigéen ñi de. waaw mais mais man dama jàpp ne dama dama jàpp ne lan moo tax jigéen ñi gën a taamu ah, taamu. importé loolu xam nga lenn la rek mooy. ci ci li ñu leen koy présenté ni ñu leen koy présenté la. c'est vrai dafa am ñun xam nañ ko dafa am noo xam ne. marketing bi marketing bi. ñun ñëpp ay at ci ginnaaw. yëre yi nga sol mu yëre olof. ñu bari dañ daan wax tabaski su ma su ma jullee tabaski ba pare sax damay summi sama xaftaan kii nit ñi ndam lañ ko daan def mais ñun tëgg taabal dañu ne. tailleur yi comme ñoo mën a ñëw xeex loolu ba mu deñ ba léegi plateau télé boo toog. waaw ñëpp ay yére olof la ñuy sol. mais ñun tëgg yi mën nañ loolu. waaw waaw ah. mën nañ ko. te te ci ci xeex boobu la nekk. xañ na loolu moo tax xeex bi mënuñu ànd parce que ñun dañu am benn xeex buñ benn combat bu ñu yor mm-hmm. mais ñoo bokk fu ñuy sotti Uh-huh. pour pour dellu si ndoy parce que ñun ñëpp comme ni nga ko waxee ay mbokk lañ uh-huh. boo gisee sax moo tax du ñu bëgg a dugg ci yenn yi uh-huh. parce que foo gis kuréel goo gis day am ñoo xam ne dañuy bëgg am na ñoo xam ne dañuy bëgg ba mu ëpp bon ki woote léegi mën nañ ko jàppee noonu moom xam nañ ko bu baax jàmbaar la mais nag euh, koo xam ne la ku bëgg AMBS ba mu ëpp mais li mu fi def ñun ñëpp gis nañ ko parce que moom moo ñu tax ñu am courage pour mën a taxaw ne dañu bëgg a taxawal suñu association nationale Ibrahima Niang moom muy wax mi ngi ciy indi beneen touche parce que ñun bi ñu commencé di jooy ñu ngi gis fan yi mi ngi commencé indi ay machine yu indi ay bus yoo xam ne en tout cas ñun ñu ngi koy encouragé mhm. ñu ngi koy encouragé mhm. te ñun amuñu problème mu maanaam personne problème mu euh, métier la ñu nekk métier moomu nag dafa am lu ko organisé muy état bu Sénégal état bu Sénégal moom moo ne dafa bëgg a taxawal comptoir national am na kuy fëgg wala am na kuy fëgg nañ ko mm. woo salaamaaleykum waaleykum salaam kilifa gi bisimilah yaa ngi ci waree waaw maa ngi si warat mu man maa génnoon léegi aprè maa ngi doon posé question far mu dagg. ah, ah d' accord waaw pourtant mujj naa la yóbbante question. ci nga bokk ci nga bokk. Ah, léegi mami nga ni. ma mën na jël émission bi yóbbante woon naa question bi mais mais tëgg table yi xanaa dañoo amul xaalis bu ñu woote wala ñu demee noonu wala affaire yi doxul association tëgg table ak li ñu toll ci réew mi émission bi bëgg a def te kenn mënu tudd association bi vraiment ñaa ñaa ñaa fa ndoy ñoom amuñu amuñu jot nag ñaa ñaa nag ñaa ñaa nag ba AMBS. waaw ñaam yi muy wax. waaw ñu ngi leen di nuyu 3 millions lañ yëkkati yóbbul ko ministère bi. waaw ñu leen di jaajëfal mais man dama bi ma leen di tooñ dama ne leen 3 millions yi mën ngeen ko jox tëgg taabal ndax tëgg taabal yi ko gën a soxla. waaye déedéet nag man kaay maa amul wóy parce que maa leen di to maa leen di tontul nag. Mm-hmm. jamono bi ñu toll mm-hmm. jàppal ma jàpp la ñu ne. Mm-hmm. ku ca mën a jàppale ka ngay jàppale na nga ka dem. kam kam gën a dëgër maanaam maanaam nag su fekkee yii mi ngi am nag consommer local bi tamit dina affaire bi ni xanaa xamu ne day continuer di ko day dem ba ci day day day day fay feeñ ci liggéey bi dafay dem ba feeñ ci liggéey bi parce que affaire u as kuréel gu tas rek affaire u association yi ñii ñoo ko tas léegi nag li ma lay bëgg a laaj mooy lan moo tax jigéenu Sénégal ñu wax ko ak ñu bañ ko wax dañuy ñëw mbaar ma ñëw ca tëggu taaga ba di leen raay ak di leen wax wax ju wax ju neex mais importé bee leen gënal foofu local bi lan moo tax da ngeen góor góorluwul wala da dañ leen wóoluwul ndax dañ sa gaa yi ñu ci bari dañuy rax liggéey liggéey bi dañuy rax affaire bi di ci def ay yu kenn xamul wala nga jox la ma jox la euh, kilo or ñëw di jël si waat sama or fekk la ma la may delloo matul kilo lan la conf manque de confiance la wala liggéey bu setul la. xam nga tëgg taabal lu ci ëpp du ñu traité li tëgg taabal am na ñuy traité ak client mhm. am na ñoo xam ne dañuy nekk bu ñu ne tëgg taabal mooy kii toog ci taabal ji di liggéey. Mhm. mais tëgg taabal ñu ci ëpp jaaykat yi la ñuy traité ñu ci ëpp ñu ci bari jaaykat yi la ñuy traité am na ñoo xam nag dañuy tëgg taabal ba pare di traité client am na nga xam da am sa client mais tëgg bi nga xam ne tëgg mooy mooy mooy mooy tëgg taabal bi lu ci ëpp ki nga xam ne mënul tëgg te dafa yor vitrine di jaay ci ñoom lay ñëw jënd bii ci pour mu jaay leen. kon day sous-traité xam nga métier mënoo yor boole comme commercial voilà commercial ak loolu normal la am na ñoo xam ne dañuy ñëw yor seen xaalis di tëgg di jaay mm-hmm. mais comme li nga wax léegi loolu yàggul bi mu xewee léegi. xam nga kii mi ngi koy wax léegi mbaar bu njëkk yàgg amul woon aada jël vitrine teg ci ay bijoux di jaay amuñu woon aada boobu. mag ñi dañ daan tëgg même bu dee dañ ko tëgg dañ koy def seen mbiir maal boo ñëwee ñu ubbi la wala nga ñëw commande boobu tëgg yi ñoo yoroon marché bi. mais bi mu ñëwee ci commercialisme maanaam ñu commerce nga xam ne nit ki day ñëw ubbi place am bu baax jël vitrine jël xaalis investir. Mhm. lal ay bijoux. dafa am ñeneen ñu ci dugg ñoo xam ne duñu ay tëgg non ay tëgg am na tëgg yoo xam ne comme man par exemple mën naa nekk di tëgg di góorgóorlu di tëgg bi dem ba yekk yi benn niveau bi ñu ci bari a mel seeg ñoom mhm. est-ce que dafa am ay géer yoo xam ne dañoo nekk ci seen dugg non bariwut buy amee tamit bariwut non bu amee it bariwut mais li ma la bëgg a wax foofu mooy maanaam li tax nit ñi wëlbatiku ci importe bi mooy ñaar la mooy benn ñun amuñu oor boo xam ne boobu la ñuy tëgg pour mën ko jaay amuñu ko or sama dollar bi gisuñu ko ñaareel bi tamit waaw ñaareel bi tamit mooy ñi nga xam ne ñooy marchand yi mhm. dañu dem ba favoriser li nga xam ne mooy importé bi imposer ko jigéen ñi wala proposer ko jigéen ñi ba jigéen ñi jublu ci importé bi d'accord yee or bi ngeen di foo leen koy jëlee kon waaw question la bi lu ci ëpp mooy li jigéen ñi nga xam ne parfois dañuy récupération bi nga xam ne moom la jigéen ñi di ñëw daa dama soxla jaay ma lii wala nangam ci loolu lañ ngeen jënd xelliwaat ñu jënd xelliwaat fond uh-huh. te fi mu nekk nii fi may waxee ak yow nii tëgg démb soxla na 40 grammes or woo ma mënu ko am non seulement or seer na mais amu fi. gramme bi ci ñaata la ne. 33 fi mu ne nii si 33500. ah 33500 cours bi si bi may dugg fii. parce que xam nga or léegi àdduna bi mu ubbeekoo ba léegi moom ci lañ ci lañ gën am problème mooy léegi jigéen ñi bu ñuy traité ak ñoom dèjà xam nañ cours bi mu toll. waaye de corona wan nañu ne. am or am jamaak am lépp am na yoo xam ne bu dikkee yooyu yëpp dootul am solo. Mhm. pourtant nag dafa wane ne. Mhm. man jàpp naa ne corona dafa war a ne képp ku am xaalis danga war a dem jëndi or. mais yéen muusu leen mais li ci doy waar. Mhm. ah kaay foofu nag lañuy taxaw mi yaandu. Ah. boo amee léegi nga ni na nga jënd suuf. suuf si bu yàggee mu jur waaye or boo ko amee itam jënd ko dajale ko soo ko jaayee day wàcc. déedéet day jur. maanaam. or. ñi jënd 2000 or xam nga suuf bala nga koo jaay dina toog ay at. waaw wala mu wala mu wala mu kii ko mais ñi jënd 2000 or. waaw 2000 or. waaw 2000 or bi mu ngi woon ci gramme 8000 21 8000 7000. 2000 waaw. 99 2000 2000 waaw. 8000 francs 8000 7000 mi ngi ci woon gramme bi. tey 33500 cinq cent kooku est-ce que dafa yokk wala yokk ëpp ko woon 2000. ëpp ko demal xool. ah dëgg day kenn sañ. waaw mi mi ak gramme mu 21 mi ngi woon ci 8000 9000 eggul woon 10000. waaw léegi léegi léegi mi ngi ci 33000 da ngeen koy jëlee 22000 francs. non bu ñëwee. bu non bu dikkee di jaay non bu dikkee di xam nga foofu tamit ma leeral fa xam nga or. bu ma nee dama ko takk ba pare de matière la non non loolu non kon yow yàgg ngaa jënd xam nga or <laughs> matière la. moom yaa xam na li ma koy wax or matière la or xam na day jaay or mais or matière la or matière la léegi ñun liñ ciy teg mooy main d'œuvre bi nga xam ne tëgg taabal mooy toog di ko tëgg xam nga tëgg taabal bi toog jël taam am xalaatam tëgg benn lam bu rafet jël xalaat ko toog ci ay une semaine coût bi nga xam ne moom la def ci jaar boobu bu ñuy jaay jaar dañ ko ciy defaale léegi loolu mooy dollee ko ci prix or bi mais prix or bi fi mu nekkoon lay nekk ba léegi ki nga ko jox tamit mu nekk vitrine di jaay bu ñëwee tamit dina ci teg loo xam ne moom loolu lay fayee ay ay léegi noonu lay yéegee léegi yow boo koy jaayaat yow booy jaayaat yow booy jaayaat doo jaay bijou xam nga yow bi ñu lay jaay bijou lañ la jaay yow booy jaay or ngay jaay ngeen raxas ba mu set teg ko ci vitre mais non mais ak lu mën a am loolu dina am loolu bëriwut mais li mën li ëpp mooy ñiy jaay bi euh, euh, or la ñuy jaay comme ki ngay jaay or lay jënd or lay jënd mais yow booy jënd bijou ngay jënd bisu dafa am lu ci nekk bokkul waxi tëgg la rek non non non du waxu tëgg bisu mooy nekk bi nekk waxi tëgg léegi bisu mooy lu ñu loo xam ne nit ki dafa toog xalaat beneen laaj ah mhm. beneen laaj ñu ñu ngi nuyu fële waaye naka ñang kii kii waay Aliou Niang defe naa moom itam suñu xarit la mhm. euh, waaw euh, laxaar laxaat laxaat sunu xarit la. laxaat xéewal laxaat xéewal kooku sunu xarit la. ah luxury bijou bijouterie Serigne Babacar. sama turandoo Serigne daa xaw a doy waar rek ki turandoo Serigne Abdoulaye waaye sama sama Serigne Eva Tra ñu ngi nuyu bijouterie yu mag yëpp. fële tam ca cosaan amoon na benn bijouterie booba gën na noo nekk xale sax. Hmm. bijouterie cosaan fële. Hmm. ci aaj yi aaj aaj yi waaw aaj aaj yi ñu ngi leen di nuyu di leen sargal bu baax a baax Adja Rose yàtte nuyoo bi yaakam moom caam euh, mani am na mm-hmm. beneen seetlu mm-hmm. am na tëgg yoo xam ni soo indee bijou ñoom dañ lay wax dañ koy jël ci prix bu bu jaadu sax lan moo xew bu jaadu mooy ban maanaam nga mami indi bijoom tey di ko di ko dugalaat mm-hmm. ñu ne garaawul dañu koy jël xanaa dafay fekk foofu nga ko jënde moo tax non waaw maanaam prix bi du wàcc wàcc day day supportable. du wàcc li ma la léegi rek moo ci nekk. Mm. xam nga ñun bu dee importé bi moom mënuñ ko contrôler. d'accord importé bi xamuñu borom lu mu ko jëndee. Ah. waxuñu ci importé ñun. su nekkee ne importé ngay jaay ngay jënd. ñun mënuñ ko contrôler. parce que waa ji moo xam li mu ko jëndee ak lan la ko jaayee ak lan la koy jëndewaatee. mais ñun bu dee bu dee bise local bi ñuy tëgg nga xam ne ñun ñoo dem jëndi or. Mm-hmm. ñëw toog ci mbaar mi xalaat tëgg ko. Mm-hmm. ñëw jaay la ko. soo ñu koy jaayaat suñu main d'œuvre bi ñu fi def rek la ñuy dindi. main d'œuvre mooy xalaat bi nga xam ne xalaat nañ ko budget bi. jox la budget bi nga teg ci ñeenti reer ak juróom-ñetti añ. xamoo lu xamuñu li nga ci am. ci loolu. parce que mën nga teg reer sëñ may la un léegi mënoo yow yow bu ko mën nga ñëw. Eh. te ni tëgg boo eh? xam nga luy seen problème. luy seen problème ah. dañuy jënd budget ba pare teg ci reer yu bari ah. boobu de mi ngi tooñ xam nga dégg nga fa mu yóbbu calcul yu bare bare waaw ba pare bu ñëwaatee ci maar mi ci tëgg gi léegi yooyu ñu gagné ci biir budget bi nga xam ne góor Ah, jigéen ju takk bijou mais loolu yëpp yow dafa am dafa dafay génne dafay génne lu bare bare ba pare ñëwaat taxaw tëgg bi hmm. ne ko non yow ko jaay woon loolu laa la koy jaay pertement hmm. amu fa bijou kese moom mooy est-ce que xam nga dinaa la wax dara pourtant maa la ñëwaat yow la jiiñ ndekete yow te dëgg la na yu mu dégg de doomi tëgg pire <laughs> doomi tëgg pire yow dégg fa nga li ñuy laajte ku mel ni <laughs> ñeenti reer ak juróom ñaari añ yi fu ngeen ko teg mooy jaaram yaay tëgg dara mu neex leen rek ngeen ne lii façon la est-ce que local bi am na ko façon la doo ko peser maanaam liggéey bi ngay jaay loolu or war na demee noonu si ne façon la façon la xam nga lu tax loolu li tax xam nga or par gramme la ñuy jaay waa xam nga jaaro nopp boo xam ne matul un gramme waa matul un gramme te yow li ngay gagné ci gramme bi nga koy jëlee comme par exemple boo nekkoo damay jaay gramme bi mais li ngay teg ci ci li sa sa sa ci gramme bi nga koy jëlee léegi su nekkee matul gramme. waaw léegi doo ci mën a doo ko mën a jaay par gramme par façon nga koy jaay. Ah. loolu moom international àdduna bi yëpp noonu la ñuy jaayee lu ci ëpp or. parce que dañuy ñëw ne lii par façon laa lay jaay mooy xalaat bi ñu ci def. Mhm. ak xam-xam bi ñu ci def nga xam ne nit dina toog di xalaat ci benn bisu ay at. doog koo defar léegi kooku dañ ko maanaam li ma doon wax léegi ci consommer local ñu dellu siwaat si malheureusement man bëggoon naa ci yaatal lu bari mhm. mooy pour ñu wax ci consommer local ndax léegi émission bi merci pour ñu wax ci consommer local fi mu nekk nii consommer local bu ñu ko dundaloon BZA bi euh, SODAF bii ñuy wax day dékkiwaat parce que tëgg yi am na ñoo xam ne bu boobaa créer rek la ñuy def mhm. dem yóbbu SODAF ñu ñu ko Modou Kassé moom xëy na moom mënul tëgg mënul mënul créer mais day dem jël bijou bi fay ko moom créer rek lay def suñu suñu dekkaloon consommer local te pour dekkal consommer local faw état bu Sénégal jël ay responsabilités taxawal comptoir bii ñuy wax. comptoir comptoir boobu tamit. mu xam ne mu xam ne du xañ na bañ koy taxawal. comptoir yi tamit comptoir waaw non noo non boobu ba léegi turu comptoir ngay dégg mais taxawul xañ ne mi ngi sori mais li ñu fay wax foofu mooy. état bi na xam ne. métier bijouterie dafa am ñu ko seq. Mhm. te tëgg taabal yi nag dañ ci am wàll bu rëy. <laughs> tëgg taabal moom day fo waaw li ma bëgg wax mooy bu ñuy wax or fii Sénégal or bi tëgg taabal yi ñoo koy tëgg. kon bu ñu taxawalee comptoir te comptoir bi xañ na ay at ci ginnaaw amul woon benn kuréel bu woon boo ñuy tuddee tëgg taabal léegi am na kuréel gu taxaw boo xam ne li ëpp ci tëgg Sénégal yi ci lañ bokk. mu taxawal comptoir moom boppam. xarul état bu ma woowoon kuréel gale ne ma lu ëpp ci. non li may wax mën nañ taxawal ci bërki démb bi ñuy wax euh, bi ñu bërki démb bi état bi bi état bi taxawalee ci Covid bi. loolu laa ñëw baal ma yëgale. waaw xa bi état bi taxawalee bërki démb si ñu ne dañu dañuy dimbali ci ndimbali. ci ñaari fan yi ñun. recensé nañ 200 personnes yoo xam ne suñuy membre lañ ñu ngi leen déposé pour ñu dimbali leen. amul benn association boobu. waaw ndimbal loolu ci loxo kan la ko pour état bi di teg. non formule bi ñu def mooy soo soo soo ñun association bi bi ñu ko yëgee dañoo xam suñuy membre ni ñu mel parce que tëgg yi dañu tayal ci dem wuti këyit duñ ko def ñun dañu ne association bi ñuy def xam na ni ñu yor ñu jël suñu benn commission mm. ñoom ñoo dem jëli fiche yi ci chambre de métier waaw président chambre de jox ñu ko bi mu ñu ko joxee ñu ñëw toog Pikine fa la ñu yendu 10 heures ba kii di leen woo di leen bind ñu ci bari téléphone lañu leen woo parce que suñuy membre lañu am nañ seen filiation mm. barki démb déposé nañ 125 personnes ngi ñi ngi bind Tiwaawoon ñu ngi bind te ñu ñëpp ci turu tëgg table la bind. pour wax ne la représentativité mi ngi fi beneen bi mooy taxawal nañ comptoir gal xaaruñu état pour mu taxawal ñu compte or ñun comptoir or di ci daw ci ginnaawam déedéet. dañu ne ñun dañu ne ñun duñu xaar état ci li ñu def. Mhm. ñu ne amuñu nañu dajale suñuy fukk suñuy ñaar dërëm suñuy juróom. ñu taxawal comptoir privé pour gal mhm. nga xam ne gal boobu sax lañ gën a yittewoo fi mu nekk nii ci or mhm. te gal boobu fi mu ne amul nekk nii bi may dugg fii ba léegi ñu may fu nekk ci Sénégal di ñu laaj gal état bi nañu jàppale pour ñu am suñu matière première boobu tamit parce que mbir mi du or rek fi mu ne niveau bu yéeg bi ñooy wax or mais ñun tëgg taabul gal lañ gën a soxla ko or. gal français gal français mooy li ñuy tëggee jaaro moom lañ gën a soxla ko or. moo tax bi ñu taxawalee suñu comptoir parce que tëgg gi dafa dafa fi nekk nii importe bi moo nangu marché bi ci wàllu or wax naa la léegi pour cent mooy nekk ci marché bi kon bu ñu toogee di xaar liggéeyu or du liggéey. xëy na gal xaal la mu xaalis yi la mu kii ci la fi mu ne tëgg taabal yi di di dawee seen dépasse déedéet léegi Sénégal duñ takk bisu soob buñ naree takk bisu soob dem ci plaqué bu bon bi te loolu yëpp responsabilité état la parce que. mi ngi yàq benn liggéey te xaalis tam mi ngi or or mais am na rafetaayam. xaalis dafa am valeur. bi ñu a yéex. bu ñu ñëwee takkal leen ci bu ñuy ñëwaat ñu bu waajal ko <laughs> mais pour wax moom du wàcc ah. mukk tëgg taabal bi ñu tëgg taabal bi ñu taxawale seen comptoir boobu nañ ko taxawale mooy suñuy dix mille ba deux cent mille mhm. bërki démb bi ñu wàññee jaay nañ trois cent kilos ci suñu biir mhm. bénéfice boobu benn société lañ taxaw pour pour mën a dem ci comptoir or mais puisque ñun mënuñu jënd or xaalis lañ mën xaalis boobu dañ taxawal benn GIE di ko jaayante suñu biir mhm. pour wax ne ñun xaaruñu dara ci état mais nag dañuy woo état ci responsabilité boobu ñu am nekk ay xale taxaw ne dañu bëgg a taxawal suñu réew ñu fen te métier bi mën na nekk dama ko wax gars yi mën na nekk mu dellu fi mu nekkoon ba président yi nga xam ne ñu ngi nekk ci Afrique di ñëw ci Sénégal di tëggaloo ay ay sénégalais. Mm-hmm. mën na nekk mën na nekk fii nekk benn holding boo xam ne seen képp ci àdduna bi dañuy ñëw di jël bisu Sénégal. di ko yóbbu. Mm-hmm. état bu Sénégal gañ di ci di ci dagg ay TVA am di fi dagg ay fiscalité lépp di ko ci dagg. nit ñi taxawal seen société dem di jënd ay machine di indi mën na nekk. mais loolu yëpp lenn rek moo koy def. mooy or bii nekk Sénégal ñu jagleel ko Sénégalais yi suñu mënta jël 50 pour cent ñu jagleel ko tëgg yi te mu jaar ci loxo tëgg yi. Mm-hmm. te mu jaar ci loxo tëgg taabal yi. parce que loolu mooy mbir mi parce que bu loolu amut du am njëriñ ci tëgg yi. mais mais comme ñeen ni ñuy def di di promouvoir li nga xam ne moom moo di euh, bijou. xam li importé bi. pourquoi pas yéen tëggu taabal mun leen a porter combat bi pour jéem a def euh, local bi. xam nga ñu ngi leen di jaajëfal lii daf ci bokk jàpp naa ne bi ñu toogee ba léegi. Mhm. ci lool la ñuy wax. Mhm. Mhm. jàpp ne ku xamul woon lan la lan la bijou local dina xam ne lii mooy bijou local. xañ na benn doole bi pour ñu am ko du yomb parce que association la alhamdulilah ñu ngi ci mais jàpp na ne bu ñu amee kattan. dinañ ko def. jaral nañu ko dem nañ bay négocier ak ñi nga xam ne ñu ngi ci série yi fii pour waxtaan ak ñoom am na ñu ñu dajal fan yee passé pour waxtaan ak ñoom pour pas seen ñu leen di jox ñuy takk. pour mën ko jaay pour mën ko wan sénégalais yi mm-hmm. yéen ñi ci plateau yi muy TFM ah, bu dee waxtaan la ñu yéen waaw non xam nga or bokk xaalis bokkul bokkul ak yére non mais mais mën nañ lay takkal saa su nekk mm-hmm. mën nañ lay takkal saa su nekk mais loolu yëpp li ñuy jàpp mooy da ngay dimbali say rakk yi nga xam ne ñu ngi toog ba ngaay te amuñu fuñ tëggee waaw no mais pour ñu pour ñu jàppale leen ba yow boo ci takkee benn lam benn lam boobu mën na tax ay junni nit di xëy di ci liggéey. wax nga dëgg parce que dañ naan ah lamb bi Eva Tra takkoon de laa bëgg. ki nekk Touba dem ci tëgg bi daan na ko lamb bi laa bëgg nga tëggal ma ko. Mm-hmm. kooku tëgg ko am ci dépasse. dëgg xëy na bu doolu boo takkul woon lamb boobu yow mën na am kooku du tëggalu lamb boobu. dëgg la moo tax il faut ngeen jàpp ci yéen ñi nga xam ne yor nañ communication bi parce que ñun li ñuy xeex xeexaluñ suñu bopp coono yi ñu ciy daj daanaka day gàllankoor sax suñu liggéey mais damay wax ne li gën a yomb ci àdduna mooy nga dund am njaboot yor leen deewal leen ginnaaw bañ a jëriñ dara sa réew oh, oh. doomu adama da nga war a jëriñ sa réew comme ni ko ñëpp di defee mm-hmm. yombul nag mm-hmm. parce que nit ñi bokkuñu gis-gis mais dañu jàpp ne ñun xeex li ñuy xeex nii ci pour yëkkatiwaat consommer local bisu Sénégal ah, bijouterie sénégalais ji jihaad lañ koy tuddee dañuy wax ne sax ñun njëriñ yàlla buñ ko fekk mun nañ ko bañ a fekkee parce que jàpp nañ ne ah, ëllëg suñuy sët ëllëg suñuy sët mën nañ ñëw gis ne ah suñ papa yi kat xëy na fekkoon nañ tëgg dem ba ñëpp bëgg ci gédd dellu ginnaaw ñu waat ko ba mu nekk lu ñëpp bëgg parce que bu njëkk nit ki tëgg fu mu jama fu mu jamaalee tëgg moo daan jam mhm, dëgg la léegi jamatu pour nga jam problème la parce que euh, nit ki ci mbaar mi mbaar bu nekkaan ci koñ mbaar bu nekkaan ci koñ mhm. même ñi nekk ci environnement yu yëpp ba moytu ñu lan daan yore seen dépasse kon daal dafa am ñeeño bala mañ sa ak ñeeño bala ma lañ kon képp kuy tëggu mbaar koo xam ne dafa bëgg a bokk seen association bi yéen day woote rek ñëw jënd carte membre wala day ñëw bokk ak tampon bi ci sa yëre bi nii loo ñu ci bëgg a wax. lii mooy ANBTT. mooy association nationale bijoutier tëgg table. tëgg table mm. kii di place da ngeen ko defal ay bolok nii. kii lii man maa ko sol. bi ñu ko solee gars yi defal moo ko ci. pour nga pour nga mën a pour nga mën a pour nga mën a. mais mais ñu ngi ñu ngi nuyu ñu ngi nuyu bu ñi nga xam ne ñi nga xam ne teewuñu fi. waaw dañuy sonn waa waa ANACA. mais ñoo dinaa leen il faut ANACA. ANBS ANBS ANBS. ñu ngi leen di nuyu di leen jox cër. non di di xam ne rek. am ngeen yéen itam lu bare loo xam ne yéen a ngi ko bëgg a wax. Mm-hmm. yàlla dafa def rek toogu leen ci plateau bi ne moom li mu wax yëpp yéen itam li ne ci yéen pour ngeen wax ko bare. bëri na bëri na tey jàmbaar lañ te te ñooy taaw te xam nga mi ngi mel ni. waaw mi ngi mel ni PS ñun dañ leen di sant mi ngi mel ni PS bi nekk ci réew mi. waaw mm-hmm. waaw wala mën nañ jël mën nga wax PS mais mën nga ko PDS. bi muy toj taxawal parti. waaw loolu courage la. waaw maanaam dañ leen di sant ci loolu. waaw mais dañ koy nangu rek. waaw comme ni ñu waxee PS ñëw na ni ñu ko waxee léegi. PS ñëw na beneen ñëw na dañ koy nangu dama la ci dama la ciy booleel. non la Sam Papa daan wax. Euh, kase ba dellu si waaw ma ni waaw la góor gi baax gi daan wax yàlla yàlla yërëm ko. amiin dafa wax même ci adversité. Hmm. boo ci defee fair play bu doy da ngay hmm. am lu bari. da ngay am lu xam nga lu waral loolu. xam nga lu waral loolu. waaw ñoom suñuy kilifa lañ. dëgg la ñu ci bëri suñu addu ah, secrétaire général bi nga xam ne moo topp ci nen di maam Thierno Diagne. Mm-hmm. ndijaayam lenqe ci responsable AMBS. dëgg la dëgg responsable yu gën a mag samay samay kilifa lañ. bi may ñëw am na ñu ma ci woo. ñun ay mbokk lañ amuñu problème. organisation ñu boole. Mm. c'est que euh, loolu tax sax man. dama non dañu bokk dañu dañu bokkul xam nga métier dafa fiir. waaw xam nga buñ ne woon bootu nañ ci AMBS ñun ñëpp. Mm. comme par exemple ñoom jaaykat yaa ngi si ñëpp a ngi ci ñun ñu bëgg a défendre tëgg taabal rek léegi ñële sax mën nañ bañ a comprendre ñun li ñuy wax ba réeroo am mais ñun bu ñu toogee suñu ruq défendre tëgg taabal yi jàppale leen mm-hmm. coqale leen ba métier mi teguwaat ñoom ñoo ciy gën a bénéficié wu am dama leen waa chambre de suñu leen wooyee suba ni leen leen état bi jàppale ci covid bi jox chambre de métier jeex na ko association président association ba nag ngeen def chambre de métier bi muy woo man daf ma woo jox ma fiche waaw man daf ma woo président chambre de métier en tant que président association jox ma fiche ma yóbbu ci suñuy membre rempli bi ñu paree bi ñu paree ñu yóbbu ko chambre de métier chambre de métier yóbbu ko ministère ndimbal loolu ñu ngi ciy wax mooy def nañ ay plateau RFM dem nan fa ñaan état bi mu jàppale tëgg yi ndax bokk nañ ci ñu gën a loru mhm. bind na ay lettre lettre yaa ngi man yóbbu ko ministre Dame Diop mhm. yóbbu ko ministère yëpp pour wax leen tëgg taabal yi ni ñu loroo mhm. alhamdulilah nag ba état bu Sénégal dégg na ba réagir ñu ngi leen di jaajëfal yëkkati na 30 milliards na jagleel na ko artisan Sénégal dañ koy nangu mais liñ ciy soññee foofu mooy bu mu yem ci bureau yi bu mu yem ci ñi yor commission ak nangam nangam ñooñu nga xam ne seeni saag la ñuy yor na wàcc ba ci ñi nga xam ne bindu nañ di ay tëgg nga xam ne barki démb dama toog nit ñi di ma envoyé seen organisation mooy di kat taxaw di ma di ma seen photo damay wax waa bureau ma leen xoolal kii da ngay xool koo xam ne da koy yërëm mu envoyé photo mi ngi dund benn mettit ndax li gën a métti ci nit nga yor métier war ci dundu te mënoo cee dund. te muy dëgg te amoo leneen doo ko bàyyi doo dem jaayi. est-ce que nga mais loolu lay wax ma ne état bu Sénégal bi mu yëkkatee loolu. bi mu ñëwaat ci yow bi mu ñëwee dañ koy yóbbu numéro yi ñuy enregistré du ñu woo sax organisation bi. ki nga xam ne moom lañ bind ci numéro am kooku la ñuy woo loolu moo gën a transparence ndax bu jaaree ci organisation mën nañ ah lii lañ leen jox ñoom joxe nañ nangam. moo tax wax bi fu mu ne nii wax leneen lu mu bëgg wax mooy nan la ñuy duggee ci association tëgg taabal. waa waa DG ngi xaar programme bi di xaar. xaw ma ku cay topp. Mhm. Mhm. waaye wareef moom euh, daanaka tey fii lañu ko yemale. macha allah lan mooy dernier mot bi. dernier mot bi mooy li may wax rek mooy ni ñuy duggee ci tëgg taabal mooy jënd carte membre. carte membre 1500 la. ñu ngi leen di jaajëfal xam naa ne 1500 la a bokk waaw yaa ngi ci biir ndax euh, yàgg nañ la suivre depuis Walfadjri bi ngay woote di dugg ci Ndoye Bane mi sama maître ñun waaw ñun Sidi Lamine Sidi Lamine moom mooy sunu lu bare bare <laughs> bi mu lay woo bi mu ngeen di dugg maa ngi leen di déglu waaw sama maître bu jëkk ba Walfadjri bi ngay ñëw bi ngay jógee Océan FM di ñëw fekk mateek euh, saa njoogu di kii ba saa njoogu di la tooj maa ngi leen di déglu ah, mais yow xale dara nga yow xale dara nga ci boole en tout cas ma bëgg a wax mooy. waaw waaw euh, képp ku bëgg a bokk ci euh, euh, tëgg taabal. ñi ngi commencé di wor di samp suñuy cellule mhm. am nañ cellule Touba Cheikh Awa Balla bi mooy président ba. am nañ cellule Tivaouane Pambo mooy président bi. ngaay même chose ñu ngi bëgg dañu bëgg a jóg pour yaatal. mais xam nga kii beneen beneen association. xam comprendre naa ko xam nga moom xam naa ah, ko. xam naa ko mais amul problème mais beneen bi. kii daa bëgg coup d'état coup <laughs> ñëpp. ñu woo ñëpp ci liggéey bi. amul benn pro liggéey bi. waaw man dama jàpp ne benn espoir la ci tëgg yi. dafa dëkkalaat. ñu gëm ne. Mhm. mën na nekk mën na nekk tëgg taabal yi dekki. Mhm. moo tëgg taabal daawuñ ko wax. ci ñun la génne moo tëgg taabal ci ñun la génne ñu waaw yu bari lañ sax mais tëgg taabal ni ñu ko waxee nii ah. ak nit ñu commencé di man tëgg taabal la xale yi da gis koo xam ne GIE bi ñor muy jaay gal da ngay gis ku bàyyi liggéeyam dem ci banque di rang pour dugal xaalis xaalis boo xam ne risque yëpp mën na la ci kii ngir ngir ngir kii xel may neex <laughs> ay seen man liggéey mami liggéey looy tàggatoo non damaa xam ne suba bu ngeen xëyee yooru waaye bis bu ne ngeen yàpp ku ngeen du yàkkale bokk ci beneen association bi de waaw ah, waaw laa jël pourtant ah. pourtant man damay man damay dem ci ñoom mais fee dama faa bari ay xarit tam <laughs> du tee ay waa laa solution ak ñoom ñëpp maa Touré yow mi yaa wax na la ci man maa ngi ñëw xam nga du tere laat xéewal moom xam nga sama sëriñ lañ ko tuddee sa ñab laat mais moom dafa xaw a waar tuuti moo tax kan laat waa dafa xaw a doy waar waaw moom itam def yu am Cheikh laat mu doy waar moom ci moom laa ko gisee mais mais mooy koo koy gaay nu xale yi kooku moom moo géré gone gone VIP yi mba corocc yi moo leen géré mm. delluwaat di bégg waat waa Sénégal gépp di wax ne amul tëgg bi amul tëgg bi kenn ku ci nekk li may wax rek mm-hmm. boo jëlee ngalam nga def ko ci leget boo ko joxee bay da koy jaawaleeg peppum suuna mm. waaye boo ko yóbbu ci tëgg ba ba mu génn jeeg bu ko takk bu nekk xam ne lii nga doon wut mm-hmm. te ko am moom nga bëgg ku ko amul moom nga bëgg waaye nag jeeg ji itam nañu koy wutee ci ngoor te boo soxlaa teg ko bu sa njaboot soxlaa nga jël ko de delloowaat lépp ab denc la rek waxuñu kenn nga dem ci xew bëgg ngalam tax nga ton ni orub jàmbur waxuñu kenn nga dugg ci kër kenn di raasaatu orub jàmbur mm. or moom am na noo koy takkee bañ koo takk sax ko gën nag ndax day mujj yàggee day mujj ñaaw kon di jaajafalaat ñëpp di wax ne yéen a bokk benn maam toog leen ci benn taabul ngeen waxtaan ndax fat fat lu tàggalewul mbaam ak i noppam mm. delluwaat di santaan ñëpp di gërëmaan ñëpp di wax ne nag wàcc naa maa ngay ñibbi ca kër jeeg ja ku ma soxla woo ma 77 899 68 49 77 280 84 15 sama promotion rek laay def nag fi <laughs> dafa xew ndakaaru boo dul def noonu sax dañ lay fàtte Eva Tra mi ngi remercier bu baax a baax bijouterie Rotonde waa kër lay Lam ñu ngi leen di remercier ci ànd bu yàgg bi macha allah ba ñuy xaleel ba tey remercier Anna Zen Attitude moom itam Mami Diallo merci à toi elle vous fait de très jolies tuniques dem leen seeti ko ma nga nekk ci 77 445 41 65 tey nag waa Béatrice Coiffure lay wax merci pour le coup de peigne mami du ma waxal lenn lu baax ba may ñëw nee na ma waxal ma ay baax baax ma ne ko dara wóoruma ci ndax sama vie privée sax da nga ciy dugg sunu rakk yooyu ñu ngi leen di nuyu ñoom Anne Marie ñoom euh, madame Ndour moom itam ma nga fa Toulaye euh, ñu ngi leen di nuyu yaayu Aïssatou Béatrice merci à toi ña nga nekk ci 33 842 50 20 Ndoye Bane ma bàyyi la. merci suba ak jàmm di féliciter monsieur Kassé bu baax. Mm. ak euh, bi ci nga xam ne ñi ngi doon seetaan ñëpp ba suba. très bien euh, Mia yow itam jërëjëf xam nañ ne programme bi dafay continuer suba incha allah daañ fi dikk gën a yaatal waxtaan bi ñan ñooy ñëw suba. surprise lay ah, doon très bien kon surprise lañ koy def lépp ci consommer local jarul ñuy jéegaani leen gis ngeen ko bi ñu commencé bopp ba tey bu dee artisanat fii la fekk baax bu dee bijouterie gis ngeen ko dañ koy def poterie vannerie cordonnerie lépp a ngi fi ba jëm sax ci wàllu restaurant restaurant gis ngeen ko lépp loo xam ne rek ay produits yu baax la ñi nga xam ne yor nañu restaurant yi mun nañu di toggee sunu ay produits kon bokk mënoon nañoo liim di dem duñu pare yal na yàlla defal nu jàmm ndeyam yi coiffure merci à toi jërë ngeen jëf ba suba incha allah